yi chaîne YouTube yi nga xam ne moo nekk diggante Touba ak Mbacké mel ni daa chaîne bi nekk fii am Kamil TV mi ngi koy jàllale Touba Vision mi ngi koy jàllale Rawa TV a TV As-Samadia Académie Minan Bichri TV Rewmi TV Isbu Rahman TV Saxum tuba Belal TV Xamle TV et Bawol TV pour wane rek l'importance bi nga xam ne waxtan yi amul fi mi ngi koy am chaîne yi yëpp nekk diggante Touba Mbacké ñu ngi koy jàllale ñu ngi profité ci occasion bi di leen sant te di leen ba tey tamit télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante bi ñu ngi koy jàllale Touba TV da koy jàllale Almouride TV Rewmi TV ba tey tamit euh, rajo locale yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante bi ñu ngi koy teg yenn ñu ngi koy rediffusé ci guddi gi lu mel ni rajo rajo Assalaamy FM RTS Touba Mbacké FM RFM bu wal Walfadjri Ceeñet FM Touba Mbacké FM ak Picap FM kon day waneen rek ne liggéey bi ñu def fii mi ngi yaatu yaatu boo nga xam dañuy wër ci àdduna bi yëpp ko bàyyi xel teewut tamit waa bitim réew ñi nga xam ne ñu ngi koy topp ci canal yi ñu ngi woote di wax njariñ lu waxtaan yi am kon wax dëgg yàlla yéen leen koy bàyyiloo xel di ñaan ak teewlu bu waxtaan commencé ñu wàññi di ko coow li ak di bañ di def nag suuf noonu ba nga xam ne day déranger ki mooy conférence ñuy bàyyi xel waxtaan wi ndax waxtaan wi lu jariñ la waaye dajaloon fi rek pour di wax rek après dem ni ñu ko war a jariñoo kon naa kon bu njëkkanteeg waxtu wi rek dañu jox oustaz góor gi kàddu gi mu liggéey bi oustaz bismillah asalaamualeykum bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñuy déglu euh, ñu ngi leen di nuyu fii ñu baaxo daje ci jamono jii nii muy maktabul cheikh al ci activités yi nga xam ne commission culturelle bi nekk ci barab bi ci njiital Serigne Bachir Diatara dana ko faral di amal saa yu ñu yegsee ci weer wu sell wii nii muy ay waxtaan yoo xam ne dañ koy def ci wàllu xam-xam ak ay yeneen yu ci jëm lu mel ne ay jeunes en herbe ak yi ni demee ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di ci jiital kilifa ak daara ji muy Serigne Moustapha di nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp ak mbokk yi nga xam ne ñuy déglu yëpp ci biir waxtaan yooyu nag tey ñu ñëw ci ab thème boo xam ne thème bu am solo la ki ñu ko war a defal di oustaz Babacar njaay thème bi mu ngi jëm ci li ñuy wax régime alimentaire mooy ni nga xamante ne moom la doomu aadama bi di jëfandikoo muy wàllu lekkam xam naa bu ñuy waxtaanee thème bu mel noonu ci xam naa ci bëccëg weeru koor wi ni xam naa ñi sant ba ak ñu mel ñi ni deme xam naa dana xaw a kii ñoom waaye mu doon thème boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ndax doomu aadama euh, fu mu mën a jaar ni ko yàlla binde faaw muy jëfandikoo dara faaw muy lekk faaw muy naan ndax doom aadama daa am nu ko yàlla bindee yoo xamante ne bi faw mu koy def te yooyu muy def yépp li muy lekk da ci am benn impact boo xamante ne bii da am mu xam impact bu positif lay nekk wala boog bu négatif moo tax doomu aadama bi war a xam nan la war a lekkee yan la war a lekk ak ak kañ ak fan loolu xëy duñ ci guddal waaye Oustaz Babacar Ndiaye danañu diktal ci jataay yooyu yëpp Oustaz Babacar nag pour ab xamle bu gàtt xëy na ci ñi nga xamante ne bi xamuñu ko kenn la ci doomu réew mi mu ngi gane jamono kawlak dëkk bu ñuy waxe Kaolack foofu itamit la dalee ab njàngam njàngum alquran ak li ñu tuddee njàngum élémentaire ci loxoy waajuram bu góor foofu la jàngee ba am li nga xamante ni moom la ñuy wax shahada al ibtidaiya bi mu jógee foofu daal di dem ci mahad Cheikh Abdullahi Niass foofu la continuer yi tamit ba jeexal li nga xamante ne bi mooy marxala indaariya mooy euh, enseignement moyen jóge foofu daal di génn réew mi dem dëkk bi ñuy wax Égypte foofu la jànge te continuer am njàngam ba am baccalauréat euh, ci série scientifique loolu mu ngi nekkoon ci atum 2012 mu continuer njàngam dugg université ba génne foofu ci atum 2016 am njàngam itam mu ngi màccoon ci wàllu lu ñu tuddee asinaat al ghizaiya moom oustaz Babacar Ndiaye am na itamit ay ay lijaasa yu bari te wuute ci ay fànn yu wuute am na diplôme ci li ñuy wax wàllum pharmacie am na itamit lijaasa itamit ci wàllu saytu ak surveiller lépp loo xam ne dafa jëm ci euh, euh, lekk yi ñuy defar baaxaay ba qualité baaxaay ba loolu tamit am na ci euh, lijaasa waaye tamit jàngalekat la ci li ñuy tudde asinaat al ghizaiya ci benn institut bu nekk Thiès ñu koy wax al mahadu zirai al arabi al ali institut supérieur agronome waaye tamit jàngalekat lay tamit ci fii nga xamante ni moom mooy Kéré Mbaye xam ne jàngalekatu loxal arab yi la foofu mu bokkoon i tamit sëñ Fallou Ndiaye wax na ko léegi ci ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo doon def formateur yi nga xam ne euh, ñoom ñoo doon formé fii ñu bari ci te maktabe bi organiser woon ko ci vacances yi mu bokkoon ci ñi nga xamante ne bi ci formateur yi tamit la bokkoon waaye tamit Oustaz Babacar Ndiaye bindkat la bind na ay yu bari bind na eh, ay riwaayaat yu bari bokk na ci alxulmu daai benn benn riwaaya la benn roman la bind na benn jar riwaaya bu ñu wax jarimatun wa lak mu ko binde woon ca Caire ci atum 2016 am na beneen tamit mu bind bu tudd alxaaribaatu min al mu ko bindee woon Dakar ci 2008 bàyyi atu samak xam ne benn histoire bu bu gàttal nii la mooy toon bind na ko euh, ci riwaayaat yi nga xamante ni Oustaz Babacar Ndiaye jot na ko bind waaye Oustaz Babacar Ndiaye tamit am na ay ay prix yu bare yoo xamante tamit jël na ko moo xam ci biir yooyu riwaayaat mu doon bind ak xëy yeneen taxawaay yoo xam ne am na ko ci yeneen i barab bokk na ci benn jaayisa boo xam ne mu ngi amoon ci majlisu shabab al arabi nga xam ne dañ ko defoon ci wàllu al qissa al qasira Soudan amoon jaayisa foofu amoon tamit benn jaayisa wax jaayisatul quds ne prix xam ne prix quds ci Euh, riwaayé Sénégal ki dàqale ki dàqale ab riwaayé maanaam roman bi ñu ci arab bu a neex ci jamono yooyu loolu mu ngi nekk woon euh, Palestine jaizatu naadi sénégalais al adabi boobu tamit euh, jaay ci jawaayis yi nga xamante ne Oustaz Babacar jot na ko am jaizatul nekk Sénégal mooy tamit bokk ci jawaayis yi nga xam ne Oustaz Babacar Ndiaye jot na koo jël kon loolu ci tënk rek lañ mën a xamle ci ki nga xamante ne bii moom moo nekk sunu kanam te war a war ñu leerlal tomb bu am solo bii nii euh, xam ne kon li muy wax nii lu mu xam la lu mu jàng la loo xamante ne ay at at yi nii ci la nekk su ko defee waxtaan bi saas danañu leeralal ban relation moo am diggante doomu aadama ak alimentation ñaar lañ ñaar lañ yoo xamante ne moom mën naa ne ñaar la ñaara ñu ànd te mënuñoo tàqalikoo kon jàpp naa ne ni ñu war a àndee loolu dana leer ci waxtaan wi waaye tamit li ñuy wax alimentation lan lay lan lay jariñ yaramu doomu aadama bi maanaam yaramu doomu aadama lan lay jariñoo ci alimentation bi nga xam ne doomu aadama bi dana koy jël waaye buñ ko benn ci tomb yi tamit danañu leer lal ñu ngi wax alimentation waaye danañu wax lan mooy alimentation d'abord su ko defee ak lan mooy alimentation boo xam ne bu équilibré la ndax xam nañ ne lu ëpp baaxut waaye lu yées tamit baaxut équilibre boobu nag naka la ko doomu aadama bi di defee loolu tamit dana ñëw dana ñëw ci biir waxtaan yi waaye tamit nit ki tamit ci alimentation am na yoo xamante ne yaramam da koy soxla te ci alimentation la koy mën a amee yooyu tamit lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la waaye yooyu tamit moom mooy yan kon su ko defee yooyu mooy tom yi tom bi nga xam ne Oustaz Babacar Ndiaye danañu ko leerlal ci biir waxtaan wi su ko defee ñu ngi e, sàkkuwaat ñëpp rek ñu taataan te déglu Oustaz bismillah ñu jox la kàddu gi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wasalaatu wasalaamu ala maxdumi cheikhina alxadim radiallahu anhu sayidina muhammad alladi baasahu llahu bililmi wa jaalahu imaman wa nuuran wa hadan ila alxalqi aamatan wa ala alihi wa saxbihi alizaami alfawaris wa kullu man ihtada bi hadiyihim wa stanna bi sunnatihim ila yawmi ddin bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu si nuyoo daaru salaam ci biir comme ni ko alquran waxee taxiyatum fiha salaam nuyoo bi nañu si jiital ki nga xamante ni mooy a cheikh Mouhamadul Muntaxa radiallahu anhu mi nga xamante ni moo fi wuutu cheikhuna alxadim radiallahu anhu moom mi nga xamante ni dafa taxawal lu am solo taxawal dëkk bi samp ko ci ñaar ñaari principe yu am solo te néew na mbir moo xamante ni taxawale nañ ko ci loolu mu dellu ginnaaw wala mu yéex muy liggéey ak xam-xam mu yar ci njaboot gi samp loolu jàngale ko wéyal ko ba mu toll fi mu toll moom it mu am ci taxawaay bu rafet ñu koy ziar bu baax a baax di ñaan yàlla mu may ko wér may ko kàttan ba mu yëggale yéen yi nga xamante am na ko pour yëggale liggéeyu Cheikh Ahmad Khadim di nuyu aussi waa Daaray Kaamil ñi nga xamante ni daanaka organe bu am solo lañ ci ñi nga xamante ni ñoo war a taxawee principe yooyu noonu mooy jàng ak jàngale sa gis nañ daara ci macha allah xam-xam chaque jour dafay tuuru ñuy tàggat ndaw yi di leen jàngal loolu tamit ñu ngi leen siy sant di leen ñaanal di leen nuy di leen ziar si njiitu sëñ Moustapha Jatara yàlla na ko yàlla may wér may ko kàttan ak ñi nga xamante ni ñoom la seqal liggéey bi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fi teew tey mooy professeur yi xamante ni ñoo ànd ak ñun comme ni ko muqaddime bi doon waxee sànq di nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ni élèves yi wala ndongo yi ñu ngi fi teew tey jii ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu wala ñu ngi seetaan euh, di ñaan yàlla lépp li nga xamante ni wax nañ ko fi mu nekk loo xamante ni lu leer la lu am njëriñ la ba mu mën leen njëriñ incha allah comme ni ko sama naataango bi waxee incha allah donc waxtaan bi xam naa mu ngi war a wéy ci lu ñuy wax régime alimentaire régime alimentaire dafa yaatu moo tax ñu jukki si yi nga xamante ni jàpp nañ ne peut-être moom mooy gën a am solo te moo ñu gën a soxal comme ni mu ko tëralee incha allah noonu lay noonu lay demee euh, dinañ wax ci régime alimentaire pour ñu wax si dinañ arrière tuuti wax si relation bi nga xamante ni doomu aadama def na ko diggante nit ba mu war a soxla alimentation pour mën a continuer dundam mën a def ay activités am ci deuxième tome bi nga xamante ni mooy ban fonction la alimentation di am si biir yaramu doomu adama suñ fa jógee ñu xam lan mooy dëgg-dëgg alimentation bi nga xamante ni moom lañ reconnaître ak aussi lan la ñu def ba am alimentation bu équilibre suñ jógee foofu tamit dinañ dinañ dugg ci xeetu alimentation yi nga xamante ni am na ak ferñeent yi nga xamante ni yaram yaramu doomu aadama dafay soxla buñ fa jógee ñu tëjee naka lañu naka la ñu organiser wu ba mën a am benn alimentation bu équilibre Euh, suñu commencé suñu premier tome bi dañuy gis ne comme ni ñu waxoon rek relation bi nga xamante ni am na diggante eh, lekk ak naan ak doomu aadama euh, du nekk relation ixtiyaar mais relation xat ala xat mee lay doon parce que tëggin bi nga xamante ni moom la yàlla tëggee doomu aadama moo laaj lool ndax bu ñu xoolee doomu aadama dañ ko boole si ñi nga xamante ni dañoo remplir ñeenti critères critères yooyu mooy lan mooy doomu aadama dafay déplacé wu maanaam des fois mën na jugee si place dem si beneen place jëmmam yépp wala lenn si jëmmam aussi dafay changer ay gaz dafay génne gaz di dugal gaz moom la ñuy wax nooy mu ñaar ñetteel bi mooy dafa mën a takkaasur dafa mën a multiplier wu mën na jur am yeneen njaboot beneen bi aussi mooy dafay alimenté wu mu nekk ñett ñeenti critères yoo xamante ni bépp jëmm boo xamante ni remplir ko ko wala feeñ na si yow dañ lay jàppee luy luy dund si lañu fekk ci biir doomu aadama ak gàncax mais bu ñu xootee tuuti ñu jël li nga xamante ni moo mooy lu gën a ndaw si li nga xamante ni moom moo composé yaramu doomu aadama bu ñu xoolee dañu gis ne yaramu doomu doomu aadama li gën a ndaw ci li ko composé mooy lan ay cellules comme ni ñu koy waxee xali bi mooy dajaloo ba defar lu ñuy wax genre tissu lu ñuy wax na nasi tissu boobu moom mooy dem ba créer benn cër ay ay cër créer ay organe ay organe moom moo créer yaramu doomu aadama donc bu ñu ñëwee di jàngat ba jël li nga xamante ni moo si gën a ndaw mooy cellule bi dañuy xool ne dañuy fekk si moom lu ñuy wax mitochondria suñu jëlee tamit cellule bi nga xamante ni moo nekk si gàncax dañ fay fekk lu ñuy wax plastide donc foofu la secret bi di commencer parce que plastide boobu noonu yàlla def si gàncax moom moo ko permettre muy mën a defar li muy dundee parce que garab yi duñu dem fenn di lekk wala di ne mais fi ñu taxaw la ñu defar seen propre alimentaire seen propre alimentation man si dundee nga xam ne su renu garab bi jëlee suuf si su renu garab bi nga xamante ni samp na si biir suuf si su jëlee su fa jëlee ndox jël fa ay élément yéegal ko si xob bi bu bu fa fekkee plastique bi dina mën a defar li nga xamante ni moom la garab bi di ko dundee su paree mu tasaar ko si xob yi ba si car yi ba si datt bi ba si ren yi ñu ànd di dund loolu nag yàlla defu ko si cellule doomu aadama mais lan la fa def lu ñuy wax mitochondria mitochondria boobu noonu moom mooy secret bi parce que daanaka mënuñ ko tuddee mooy hygiène bi nga xamante ni moom liggéey wàllu énergie parce que énergie moom mooy dawal yaramu doomu aadama si lépp mitochondria boobu noonu nag moom moo indi relation bi nga xamante ni am na ci diggante doomu aadama ak alimentation parce que chaque jour doomu adama dina soxla ay énergie pour def ay activité moo xam activité yoo xamante ni activité physiologique la maanaam activité yoo xamante ni si biir yaram bi lay am wala activité yi nga xamante ni doomu aadama moo koy amal si biti mu nekk activité yoo xamante ni am na ñaari pàcc am na ay activités yoo xamante ni moom moo koy amal ci coobareem comme wax wala dem wala dikk wala def réaction am activité yoo xamante ni moom amu ci amu ci mainmise maanaam amu ci lu muy def wala lu muy dindi lu mel ni daw deret ji daw ci yaramam bi bi déparé ci xol bi war a jëm ci yaram bi ànd ak oxygène wala bi déparé ci yaram bi war a dellusiwaat ci xol bi génne CO2 maanaam sànni oxyde sànni oxyde carbone wala activité bi nga xamante ni mooy mooy bi nga xamante ni xol bi mu koy mu ngi koy def wala deret bi mu ngi koy def xol bi mu ngi koy pomper tout le temps activité boobu yaramu yaramu doomu aadama amu si mi wala activité bi nga xamante ni yaram bi mu ngi koy def pour pour jàmmaarloo ko ay attaques yoo xamante ni dañuy ñëw di ko attaquer pour war feebar yoo xam ne mën na ko wàll donc suñu xoolee moo xam bi nga xamante ni am na ci coobare wala am na ci coobare ñaari activité bi dafay bu ko war a amal foofu nag foofu la seen ñoom ñaar commencé parce que doomu aadama dafay soxla pour alimenter wu alimentation boobu moo koy jox énergie bi nga xamante ni yaram bi soxla na ko pour def ay activités yi nga xamante ni moom la moom la soxla moo xam yi nga xamante ni moom moo koy amal wala yi nga xamante ni yaram bi moo koy amal amal yenn activité physiologique yoo xamante ni yaram bi moo koy amal lu ci mel ni nooyi comme ni ñu ko waxee lu ci mel ni aussi ay réaction yoo xamante ni yaram bi da koy am pour mën a def défense donc suñu boolee mbooleem activités yooyu yëpp moo xam yii la wala yàlla dafay soxla énergie énergie yooy noonu nag alimentation bi moom mooy li nga xamante ni moom moo koy jox doomu aadama donc kon ñoom ñaar seen relation foofu la commencé parce que nit ki dafa indépendance ci alimentation parce que li nga xamante ni soxla na ko pour mën def ay fonctionnement am foofu la ko mën a mën jëlee bu ñu ñëwee si ñu xool dañuy gis ne li nit ki di di di jëfandikoo moo xam muy lu ñuy lekk wala lu ñuy naan dafa am liggéey yu am solo solo yoo xamante ne koy liggéey si yaramu doomu aadama liggéey bu njëkk bi mooy màgg alimentation boobu mooy tax nit ki di développé di di màgg parce que xale bi day juddu nekk lu ndaw comme ni ko alquran taswiré di màgg di màgg ba su ma yoroddu ila arzalil umr comme ni ko yàlla waxee subhanahu wa taala donc moment boobu yëpp dafay soxla gisa pour man a dem yemu waaye tamit dafay soxla dafa am beneen màgg bu am ci yaram bi boo xam ne ñoom ñaar dañuy rawante mooy tudd màgg màgg bi nga xamante ni mooy màgg psychologie wala màgg ci wàllu xel parce que nit ki ni muy développé si wàllu yaram noonu lay développé si wàll xel aussi ak xam ak xalaat mais ñaari xel ñaari màgg yooyu dañoo war a équilibre dañoo am tawaasun seen diggante ñoom ñaar benn bu demee bàyyi sa moroom rek day indi jafe-jafe kon donc loolu bokk na si liggéey bi nga xamante ni bu am solo rawatina nag ci moment yi nga xamante ni ci la nit ki di que nit ki nekku na day continuer rek mais moment yi nga ni dafay dafay màggee diggante bu mu nekkee xale ba bu mu nekkee waxamaande diggante boobu ci la liggéeyam di gën a jëm si côté boobu waaye même ki nga xam ne passé na foofu tamit beneen liggéey bi nga xamante ni alimentation bi dafa def ci biir yaram bi mooy lan day remplir li nga xamante ni ay ay ay gaañu gaañ la ci biir yaram bi loo xamante ni lu lu dañ la si yaram bi mu defaraat ko remplacer beneen wala loo xamante ni lu sooxe la ci biir yaram bi mu daal di koy tabax tabaxaat donc bokk na ci liggéey bi gën a am solo moom mooy màgg ak tabaxaat yaram bi ak di ko defaraat beneen bi mooy aussi euh, defence bi muy défendre yaram bi si yenn attaques yi nga xamante ni dafay attaquer doomu aadama. ndaxte suñu xoolee même si biir monde méta monde physique sax la ñuy wax si al alamul maxsuus am na ay mbindeef yoo xamante ni yàlla moo leen bind waaye seen dayo si wàllu jëmmu dafa néew néew a ba nga xamante ni day jafe loolu ñu gis leen nii si bët mooy li ñu tuddee microbe xamante ni seen jafe seen seen dayo dafa tuuti ba bët mënu ko gis pour ñu mën ko gis dañ koy dañuy utiliser ay jumtukaay yoo xam ne dañuy réyal seen seen jëm réyal ko ba bañ mën ko gis yooyu aussi dañuy dund ak ñun te duñu leen gis des fois dañu am ay rapports yu ñu am ak ñun di am attaque yu ñu def donc alimentation boobu noonu moom mooy li nga xamante ni moom mooy jàmmaarloo ak ñoom parce que yaram bi su fekkee ne mu ngi alimenté wu normal dafay nekk ci état de défense boo xamante ni bu puissant lay doon su ko leen attaqué moo xam microbe la wala virus la wala champignon boo xamante ni dugg na ci lekkam mu mën a jàmmaarloo ak moom parce que yàlla dafa xereñ ci bindam parce que euh, euh, mbindeef yooyu lu ñuy néew doole néew doole am nañ dara si tooke loo xamante ni lu mën a sonal doomu aadama la mën na ko sax dem ba yóbbeeku mu ñàkk bakkanam moo tax alimentation bi su fekkee ne yaram bi mu ngi alimentation wu mu ngi alimenté normal di am lépp li nga xamante ni soxla na ko si ay xeetu ñam ak si xeetu ferñeent ak ay xeetu vitamine dafay nekk si bon santé boo xamante ni su ko dara attaqué xëy na du yomb mu daan ko wala mu ëpp ko ko doole donc loolu tamit bokkaat si liggéey yu am solo yi nga xamante ni alimentation dafa liggéey si biir yaram bi beneen bi aussi mooy euh, li ñu doon wax sànq ci ginnaaw rek moom mooy offrir yaram bi énergie bu mu soxla parce que doomu aadama léppam ci énergie lay lay basé wu maanaam ci benn kàttan bu mu am pour mën a wax pour mën a def pour mën a dem kàttan boobu tamit li nga xamante ni lay jëfandikoo ci alimentation yi xam naa dina ñëw gën ko yaatal parce que xëy na ñam bi su nekkee ci biti mën na tudd neneen mën na tudd ceeb mën na tudd mburu mën na tudd leneen waaye su duggee si yaram bi beneen tur rek lay am mooy lu ñu tuddee ATP mooy benn produit bu adénine boo xamante ni dafa ànd ak ñetti atome si eh, phosphate monnaie boobu rek moom la yaram bi reconnaître moom la jëflantee su ko defee lekk bi bu duggee ak nu mën a duggee da koy da koy changé def ko monnaie boobu changé ko def ko loo xamante ni énergie lay doon mën ko jëriñoo nga xamante ni si activité yi nga xamante da koy def yëpp ay activité physiologique am yëpp yi nga xamante ni day mat si bi mu mën ko utiliser si loolu liggéey yi nga xamante ni yu am solo la yoo xamante ni mun doomu aadama mënu ko mënu dund san loolu yoo xamante ni alimentation da koy da koy taxawee suñu jugee si loolu ñu wax lan mooy lan lañ tuddee alimentation alimentation bi nga xamante ni moom la ñu reconnaître mooy bi nga xamante ni dina mën a joxe loolu ñu ko laaj kon nit ki lépp loo xam ne da koy jëfandikoo muy lekk muy naan mën na ko suural mën na ci am quantité bu doy mais tant que mënul joxe li nga xamante ni yaram bi soxla na ko pour mën a aar boppam soxla na ko pour mën a def ay activité am ko pour mën a màgg soxla na ko pour mën a defaraat leneen lu yàqu si biir yaram bi su fekkee ne loolu amul fa rek kon loolu ñun duñ ko jàppee comme alimenta alimentation dafay nekk loo xamante bu manqué mais alimentation bi bi bi nga xamante ni dëgg-dëgg mooy alimentation bu normal bu mooy bi nga xamante ni dina mën a jox yaram bi li nga xamante ni soxla na ko pour mën a def ay activité am aussi dina ko mën a aar waaye tamit muy soxla calories yi nga xamante ni yaram bi da koy soxla maanaam li muy dugal si lekk ak naan si ay calories war naa tolloog li yaram bi di dépenser pour def def activité ñu am lu ñuy wax équi mu am balance équilibre bi nga xamante ni li muy lekk lu mu néew néew néew warul tuuti si li nga xamante ni yaram bi soxla na ko waaye waru ko ëpp aussi ndax comme su néewee ni muy lompañee pour mën a def ay liggéeyam su ëppee noonu la koy créer yeneen problème yoo xamante ni day juddu yoo xamante ni mën na mën na ko indil ay jafe-jafe si wàll yaramam. kon li scientifique yi définir jàppee ko ne moom mooy alimentation bi équilibre mooy alimentation boo xamante ni li muy jox yaram bi si ay kilo kalori maanaam ci ay euh, kilocalories moom la natee nattee kàttan wala moom la ñu nattee énergie bi nga xamante ni ci lekk lay jógee di dugg ci biir yaram su fekkee ne moom li muy lekk lu mu néew néew néew war na tolloo ak yaram bi de di de dépenser moo tax si lañuy wax ne nit ñu kon seen ali seen nizam alimentaire wala seen régime alimentaire dafay wuute sans départ ci seen âge bi ñu am sans départ ci activité bi ñuy liggéey wala sans départ ci bii bi ñu nekk maanaam ci environnement bi ñuy dund aussi ak sans départ seen physique seen seen wàll masse ak seen wàll li nga xam ne moom la ñu pesé nan la nan la tool kon foofu la ñu tënkoo kon alimentation bi bi nga xamante ni moom moo équilibre moom moo normal mooy bi nga xamante ni lu mu néew néew dina jox yaram bi li mu ëpp li soxla li mu soxla pour mën a dépenser pour def ay ay activités am suñu jugee si loolu nag ñu commencé dugg ci xam yan mooy alimentation yooyu ñuy lim produit yooyu ñuy lim mooy yan ak yan seen source fan la fan lañ ko mën a amee ak lan la ñuy jëriñ parce que suñu xoolee dañuy xool ne daa am loo xamante ni yaram bi da koy da soxla lu bëree bëree bëree bëri ñu tuddee ko almughaziyat al kubra moom lañ tuddee macronutriments lañ koy tuddee en français maanaam yaram bi da ciy basé wu lu bëree baree bëri ci moom lay compter lu bëri pour mën a am alimentation bi nga xamante ne soxla na ko am loo xamante ni dina ko soxla waaye bëriwul ñu tuddee ko aussi micronutriment maanaam almughaziyat as-sughra bu ñu ñëwee si élément yu mag yi nga xamante ni yaram bi da koy soxla lu bëree bëree bëree bëri si lay basé wu ci lay jël lu bëree bëree bëri mën nañu wax ne bi si jiitu mooy lan lu ñu wax ndox o mooy ndox après dinañ ñëw dinañ ko gën a faram benn par benn bu ñu jógee si ndox mi am lu ñuy wax carbohydrate moom la wax glucide nga xamante nekk na moom tamit loo xamante dafay offrir yaram bi lu bari ci énergie bu mu soxla pour mën def ay activité am bu ñu jógee ci loolu ñu am lu ñu wax protéine wala ñu wax protéine moom nga xamante ni aussi yaram bi da ciy basé wu ci moom lu bëree bëree bëri pour tabax pour defaraat suñu jógee ci loolu ñu am lu ñuy wax euh, ad duhun moom la ñuy wax graisse aussi boobu tamit dina ñëw ñu ñu yaatal ci bu baax a baax ci wàll liggéey bi nga xam ne da koy liggéey ak ci wàll aussi source bi ñu ko mën a amee si biir fi ñu ko mën a jëlee bu ñëwee ci glucides yi moom la ñuy njëkkee bu ñu ñëwee si seen famille bi dañuy xool parce que moom yu ci ëpp ay sucre la sucre yi bëri na nag sans départ ci ci ci chaîne carbone bi nu mu tool am na la ñuy tuddee glucose wala wala gluci glucose am na lu ñuy wax fructose raffinose yooyu yëpp ay xeetu suukar la yoo xamante ni yaram bi da koy da mais li ñu si gën a amal solo rek mooy dañ koy xaaj ñaari mu am benn xaaj bi nga xamante ne ay sucre yu simple la maanaam dafay yomb pour yaram bi jot si moom reesal ko du jafe du jël temps ay sucre yu simple la mooy sucre yi nga xamante ne en général dañ koy mën a am ci lépp lu ñu defaree pat lu mel ni ay mburu ay bonbon ay biscuit ay mburu yooyu yëpp sucre bu simple moo ci nekk li tax ñu téye ko sucre bu simple moo mooy que ne moom digéré ko compliqué wul parce que déjà rek yow boo ko tegee sa laam yi da nga gis ne commencé di di seey saa nga saa sa biir su boobaa yaram bi dafay day gaaw mu mën si jot énergie bi bi ci nekk day gaaw mu jot si moo tax ñu tuddee ay sucre sucre simple aussi mooy sucre yi nga xamante ni mooy nekk ci boisson gaz yi nga xam ne dañ koy jël des fois mooy boisson énergétique yi dafa nekk sucre bu simple boo xamante ni yaram bi da koy gaaw a consommer na ko gën a gaaw a consommer yu simple yooyu noonu seen digestion mu ngi commencé ci làmmiñ bi déjà dafa am lu ñu wax euh, al amylase benn genre yi hormone la boo xamante ni yàlla da ko def si gémmiñ moo nekk si yuut wala si taflit moo nekk si gémmiñ doomu adama dafay jouer rôle bu bu bu bu am solo ci seeyaleen parce que moom lépp luy sucre sucre simple du ko bàyyi bu mu yegg ci biir bi mais moom mën euh, gi du jar mu yegg si biir sucre sucre simple yooyu nag moom mooy xaaj bu njëkk ci glucides yi beneen bi nag moom lañ tuddee sucre yi nga xam ne dañoo compliqué maanaam li tax wax bi simple wax bi compliqué maanaam lépp mu aju ci décision bi maanaam yaram bi ni muy def ba jot si su nekkee yeneen yi nag ñoom ñooy gën a jël temps ñooy gën a yàgg pour yaram bi man si jëriñoo moo tax ñu tuddee ñu tuddee leen si yi nga xam ne dañoo xaw a compliqué tuuti seen ni leen yàlla bindee yooyu nag ñu ngi koy fekk si euh, li ëpp si céréales yi maanaam ay dugub ay mboq ay ay ceeb yooyu yëpp dañu koy fekk si biir du ko fekk tamit si xeetu si xeetu ñebe yu wuute yëpp moo xam ñebe bi local bi ñu bi ñu xam la wala ñebe haricot bi la wala euh, petit la yooyu yëpp day nekk si glycide boobu moom mooy nekk si ñoom. xam te nit ki su ko consommé dina am temps boo xamante ni dina ko jël pour yaram bi mën ko digérer man si jëriñu aussi tamit moo nekkaat même cycle bi nga xamante ni nekkaat na si lépp pour li ëpp si ay légumes ak li ëpp si ay fruits donc kon moo tax moom la ñu féetee wàll boobu glucides yi daanaka ñoom la ñu féetee légumes yi ak fir yi ak céréales yi nga xamante ni mooy xeetu pepp yi nga xamante ni am nañ foofu lay nekk. suñu ñëwee ci liggéey yi nga xamante ni da koy da koy da koy liggéey dafa nekk source bu am solo pour énergie danaka moom énergie bi yaram bi di soxla si moom la ko gën a mën a amee beneen bi aussi moom moo jox nit ki sentiment suur mooy tax nit buy lekk mu mën a yëg ne suur na mu bàyyi sentiment suur boobu noonu glucide bi da ciy joué lu am solo beneen bi aussi dafay renforcer yaram bi di ko dimbale si ay vitamine ak ay euh, minéraux aussi ak ay fibres yoo xamante ni dina ko soxla pour mën def ay activité ak ay activité physiologique am donc kon moom yemul ci jox ko énergie mais da koy gunge di ko jàppale yëpp lépp loo xamante ni xeetu élément yoo xamante ni moom dina ko soxla ci liggéey yi nga xamante ni moo koy xaar si biir yaram donc suñu jugee soo ñu dem si keneen ki ñuy wax mooy protéine protéine bi moom daanaka moom la ñu tabaxee su nekkee bâtiment la mën nañu wax ne moom mooy ciment bi parce que lépp loo xam ne dafa jëm si wàll yokkute si wàll màgg cër bu war a yokk moom moo koy taxawee mooy tabax yaram bi en même temps aussi su amee loo xamante ni dafa yàqu wala dafa gaañu moom moo koy defaraat moom moom mooy jagalaat comme ni ñu koy waxee protéine boobu nag daanaka mën nañoo jàpp ne moom mooy li gën a am solo si si li tabax yaramu doomu aadama mu am rôle bu am solo si bi nga xam ne da koy joué ci màgg doomu aadama rawatina xale yi ak ñi nga xam ne parental yi ñi nga xam ne dañuy nàmp aussi tamit moom mooy arme bi nga xamante ni yaram bi da koy utiliser pour mën a jàmmaarloo attaques yi nga xamante ni am na ko sànq ñu ngi koy wax si microbe bi nga xam ne des fois mën nañu attaquer yaram bi moo xam euh, bactérie la wala mu nekk virus protéine boobu noonu. dafay liggéey liggéey bu am solo parce que dafay renforcer lu ñu wax euh, donju deret yu weex yi parce que dafa am donju deret yu xonq ak donju deret yu weex yi moo leen di que ñoom ñoo yor yore wàllu défense yaram bi parce que moom moo leen di couvrir moo leen defal ay proté protège moom aussi moom moom mooy mooy genre loo xamante ni arme boo xam ne moom la utiliser pour jàmmaarloog lépp loo xamante ni dugg na si yaram bi war ko attaquer war ko indil feebar wala war ko jugal jural jural jàngoro suñu xoolee nag protéine dafa bëri ay façon mën nañ si jël ñaar yi nga xamante ñoo gën a am solo mooy protéine bu am qualité mooy protéine bu mat moom la ñu tuddee protéine boo xam ne dafa complet am boo xam ne dafa incomplète maanaam matul bi nga xamante ni mat na te mu ëpp qualité mooy buy jugee si mala yi mooy buy jógee si xayawaan yi soit dafa nekk loo xamante ni moom mooy jugee ndawal bu xonq lay doon wala ndawal bu weex lay doon wala nen lay doon wala soow lay doon wala lépp loo xam ne day aju ci soow lu mel ni fromage euh, beurre yooyu yëpp meew si meew lay jugee soit mu nekk soow yaawur wala mu nekk euh, fromage ñu mën ko utiliser wala mu nekk beurre si seen musaqaat lay jógee maanaam source boobu bu ko toppee si mala yi la ñuy yóbbuwaat du ñu yóbbu si gàncax boobu mooy protéine bi nga xamante ni mat na aussi mën nañ ko am tamit si rabu géej yi nga xam nañ koy fekk si géej moo xam ay jën la wala yeneen façon rab yoo xam nekk na si ay ay géej lu mel ni ay crevette lu mel ni aussi ay sipax lu mel ni ay yéet lépp loo xam ne day si biir géej gi mën nañ fa am protéine bu complète boo xamante ni mooy protéine boo xamante ni source bi si mala lay doon am nag beneen protéine boo xamante ni moom moo incomplet moo xamante ni moom matul wala dafa manqué wala duñ ko am si qualité bi ñu ko mën a amee mooy protéine boo xamante ni dafay dem si gàncax parce que sànq maa ngi koy wax gàncax fi mu gën a fooree mooy glucide pas protéine mais nag am na si gàncax yoo xamante ni am nañ ko lu mel ni fruit bu ñuy wax avocado am na moom moo nekk euh, fruit boo xamante ni dafa dafa riche ci li nga xamante ni protéine la aussi am nañ yenn buquliyaat yi maanaam yenn xeetu ñebe yi nga xamante ni dafay am dara si protéine donc bu mu si mën a doon rek yaram bi dina ko soxla mais mu ngi gën a soxla bi nga xamante ni mooy protéine bu mag moo tax suñu alimenté wu dañu war a def alimentation bu wuute si xeetu ndawal yu wuute yi comme ni ñu ko waxee ndawal bu xonq wala ndawal bu weex wala ndawalu géej comme ni ñu koy waxee su ko defee dinañ mën a am protéine complète yeneen yi nga xamante dinañ ko soxla mën nañ ko am si lu mel ni ñebbe wala haricot wala petit pois yooyu nga xam ne yëpp day am benn xeetu protéine boo xam ne donte matul mais yaram bi da koy da soxla yooyu yëpp nag su ko amee ba pare moom principal liggéeyam mooy tabax màgg defar parce que moment bi nga xamante ni xale bi dafay màgg wala niki dafay màgg day soxla quantité bu doy ci protéine protéine nit ki nag dafay wutee day aju si âge bi nga xamante ni am na ko parce que ki féetee ndaw chaque jour moo koy gën a soxla day féetee tamit si wàll xeet maanaam góor la wala wala jigéen parce que am na jigéen moment boo xamante ni mooy gën a soxla protéine su nekkee dafa nekk jigéen ju wër wala aussi dafay dafay dafay nàmpal dafa yore tout tànk su woowaatee moom da da koy soxla aussi ki nga xam ne dafay def liggéey liggéey boo xamante ni dafay laaj activité physique maanaam chaque jour buy liggéey ci yaramam lay basé wu pour mën a def liggéeyam kooku tamit da koy soxla lool su ko defee kon mu nekkoon ñaareel pàcc bi nga xamante ni moom moo ëmb ci ferñeent yu am solo yi ak fi ñu ko mën a amee beneen bi mooy lu ñu tuddee ak duhun moom la tuddee graisse graisse nag dafa am ñaari façon graisse dafa am graisse bu baax ak graisse bu bon maanaam graisse boo xamante ni baax na ci yaramu doomu adama ak graisse boo xamante ni mën naa lor yaramu doomu aadama loolu nag baaxaay bi ak bonaay bi mu ngi dellu ci seen ni nga xamante ni noonu leen yàlla tëggee ci wàllu chimie maanaam seen tarkib kimia yi parce que dafa am graisse boo xam ne dafa jàpp ñàmburam am boo xamante ni jàppul ñàmburam suñ ko bëggee wax ci olof graisse bi nga xamante ni dafa jàpp ñaamara mooy graisse boo xamante ni dina néew néew loolu mu dugg ci ay relation wala mu dugg ci ay réaction yoo xamante ni si biir yaram bi amut ak kenn affaire day dem beru fi rek mu nekk fa am boo xamante ni nag moom euh, jàppul ñaamuram mën na am ak kenn relation mën na ànd ak kenn mën na mën na bouger fii mën na dugg fii mën na changer sax parce que même graisse boobu des fois comme ñu ngi si sax ci weeru bu ñu xiifee yaram bi bëgg a def ay activité amul fu mu ko jëlee graisse boobu la bu mu dencoon si yaram bi mu lay mujj jëlaat di ko di ko seeyalaat pour mën ci am énergie bi nga xamante ni moo ñu permettre ñuy wax di dem di dikk te te te fekk ne lekkuñu naanuñu donc boobu mooy graisse bu baax bi graisse boobu nag fan lañ ko mën a amee graisse bu baax boobu noonu mooy graisse bi nga xamante dañ koy fekk si bépp huile boo xamante ni dafa nekk lu naturel maanaam dafa jugee si gàncax mën nañ ko am lu mel ni diw diwu mboq par exemple wala diwu gerte wala diwu tournesol benn gàncax boo xamante ne lu ci ëpp dañ ciy dañ ciy jël diw wala zeyta zeytun wala diw boo xamante ni ci olof lañ olive lañ ko lañ ko lañ koy jëlee mu nekk xeetu diw yoo xamante ni du indil yaram bi ay jafe-jafe te yaram bi dina ko soxla si ay moment yu bëree bëri dina ko mën a jox offrir li nga xamante ni am na ko si si euh, énergie bi nga xamante ni yaram da koy soxla aussi mën nañ ko am si yenn xeetu grain yi nga xam dañ koy faral di jëfandikoo lu mel ni ay gerte wala lu mel ni aussi ay ndaamaraas yooyu yëpp mën nañ ko am si biir mën nañ jël mën nañ jël graisse bi si biir beneen bi nag mooy graisse bi nga xam ne moom lañu war a moytu mooy graisse bi ma doon wax sànq mooy mooy graisse bi nga xamante ni dañ koy mën a fekk si diw yi ñu defaraat xam maa ngi wax ne diw yoo xamante ni source am dafa naturel maanaam diw yoo xamante ni dañ ko jëlee si ay gàncax yoo xamante ni yàlla moo ko sax saxal naturellement am ay diw yoo xam ne dañ ko toggaat wala dañ ko defar defaraat moom lañ tuddee aziyut al muhadraja yooyu nag dafay ànd ak xeetu graisse boo xamante ni su duggee si yaram bi du am ak kenn affaire fi mu nekk lay nekk wala graisse bi nga xamante ni bu ñu bu ñu reyee gàtt dañ koy fekk si ndawal bi mu ànd noonu weex tàll ànd nekk benn place comme ni mu jàppee ñaamburam si yaram bi noonu lay defaat si yaramu doomu aadama te loolu dafay waral bu ñëwee ba si tiwo yi dafay takk si sidit yi du jàll loolu mooy waral aussi xol bi dafay obligé pour pour yokk dooleem pour pompe pour aussi ndax deret ji mën a circuler loolu nag si la feebar yu bëri di juddoo rawatina feebaru xol yi wala malaise parce que xol bi des fois tamit buy pompe di pompe des fois mën a jékki-jékki rek euh, mu taxaw loolu mooy waral yenn malaise yi ñuy gis wala yenn crise cardiaque yi ñuy gis parce que parce que tunnel tunnel yi wala raakool yi nga xamante deret ji dafay daw dafa xat parce que euh, graisse yooyu ñoo fa takk te demuñu su boobaa aussi dafay da laaj moom tamit mu gën a yokk dooleem yokk doole googu moom mooy jur yenn feebar yu am aussi tension tension bu yéeg ci lay jógee parce que day bàyyi day mujj bàyyi pression am normal am yokk pression pour mën a servir deret ji mu mën a yegg si si yaram bi yëpp parce que deret ji moom mooy si lay jaaree alimentation bi yëpp su lay jaaree pour mën ko wasaare si yaram bi yëpp xool bi moo koy séddale mu déparé ci kaw wàcc si suuf loolu mooy mooy liggéeyam bu gën a am solo donc graisse boobu la war a gën a moytu ñu moytu ko si diw yi ñuy defaraat diw yi nga xamante ni nekkul amul ay diw chimique la nekkul diw naturel en même tamit ñu moytu ko si yi nga xamante ni moom mooy euh, diw boo xamante ni soo ko tegee si température normal day day day day formé donc loolu mën nañ ko si xàmmee diw warul former si température normale soo ko tegee ne warul warul warul former donc xeet diw boo xam ne yaa ngi ko jëfandikoo nga gis ne soo ko tegee dafay weex wala mu former ba xaw a weex boobu mooy graisse bi nga xamante ni jàppul ñaambaram boobu bokk na si yu ñu war a yu ñu war a moytu. suñu xoolee tamit mën nañu am diw jën parce que jën aussi dañ ciy defar jën dañ ciy defar diw diw bu riche rawatina jën yu mag yi moom lañ tuddee zeyt capital food dañ koy defar yooyu yëpp man nekk na si si graisse yi nga xamante ni am nañ ko. aussi tamit ñu moytu euh, graisse yi nga xamante ni moom mooy nekk si lekk yu gaaw yi ñu tuddee fast food maanaam lekk boo xamante ni defar bi du diire du jël temps defar bi dafay gaaw lool noonu muy muy gaawee euh, ci lay juree yenn day ànd ak yenn yoo xamante ni bu duggee si yaram aussi fi taxaw lay lay taxaw du déplacé wu du bouger te te moment taxaw bu mu fay taxaw day jur yenn gàllankoor si liggéey bi nga xamante ni yaram bi da ko war a war a liggéey donc kon wax nañ partie bu njëkk bi bi nga xamante ni moom mooy jaar nañ ci mooy euh, glucide bi wax aussi protéine wax aussi li nga xamante ni mooy duxun mooy diw yeeg graisse yi ñu ñëw si partie bi nga xamante ni moo gën a am solo moo tax ñu mujjee ko mooy dox alma comme ni ko yàlla waxee subhanahu wa taala wa jaalna min al maai kulla shay'in xay suñu xoolee moom bokk na ci li gën a mag si li nga xamante ni yaram bi da ciy basé wu ci dundam ci alimentation am muy ndox parce que déjà bu ñu xoolee yaramu doomu aadama rek 60 pour cent ndox la moo ko composé rawatina nag ndox bi nga xamante ni da koy soxla te pour yaram bi man a def benn activité moo xam activité physiologie lay doon ci biir mën a nooy mën a circuler deretam mën a def défense am ni mu waree mën a harmoniser seen diggante ci biir yooyu yëpp dafay laaj ndox moom mooy yombal liggéey boobu su ndox mi manqué rek loolu du amati connexion boobu di am parce que comme ko waxee si commencement bi ni nga xamante ni noonu la cellules yi juree di jur di màgg di màgg ba jur organe bi ba mu taxaw organe boobu organe yooyu tamit ñoom ñoo formé doomu aadama mais organ yooyu dañuy liggéey seen biir dañuy harmoniser aussi parce que am na loo xamante ne bu ñu ko war a def ñoom ñëpp dañ si dañ siy bokk su boobaa dañuy harmoniser harmoniser boobu di am si yaram bi yëpp nga xamante ni xol bi mu ngi harmoniser ak xel mi xel mi mu ngi ak muscle yi muscle yi mu ak yax yi nga xamante ni lépp lu ñu def ñu mën ko defandoo ki ci war a dimbale sa morom loolu ki koy yombalal connexion boobu ki koy yombalal mooy ndox bi nga xamante ni doomu aadama da koy naan mu tax sax da néew nee nañu nit ki warul naan lu gën a néew ñaari litre chaque jour ci ndox war na ko naan aussi tamit mu nekk ndox bu seel ndox boo xamante ni amul teexit wala mu am leneen parce que tamit ndox ki nga xamante ni mooy jëflanteek moom mooy rein maanaam mooy kil kile yi nga xamante ni mu nekk si yaramu doomu aadama te su fekkee ne ndox mi sellul wala jaarul fi mu jaar avant muy dugg si yaram bi moom mu def liggéey boobu moo koy waat encore te filtration boobu muy def bu si yàggee bu si yàggee day dem ba teexit bi doon des si ndox mi day desaat ci biir rein yi te loolu day fay jural nit ki ay ay ay ay métit yu day waar mën na sax ba egg ci lu ñuy wax euh, échec maanaam rein yi dañuy échec pour mën a pour deret ji moom mooy jur jàngoro boo xam ne yàlla incha allah musa moom wax euh, dialyse donc ndox mi ni ni ko yaram bi di soxlaa mu war a bëri aussi noonu lañu war a bàyyi xel ci sellaay bi parce que ndox bi moom lépp lu ci dugg te bokku si am na keneen koo xamante ni moom moo obligé pour mën ko filtrer mën ko baare te loolu noonu su yàggee mën na si am moom jafe-jafe wala mu jural yaram bi jafe-jafe donc ndox mi aussi tamit consommation ndox dafay wuute si dëkk yi sans départ ci environnement bu muy dund parce que ñi nga xam ne dañu tàng wala dañu nekk ci environnement bu tàng seen yaram dafay ñàkk ndox parce que bokk na ci méthode bi nga xamante ni yaram bi da koy def mooy day ñax ñax boobu noonu nit yaram bi da siy ñàkk ay ndox kooku moom moo war a gën a mën a jëlaat ndox parce que li muy ñàkk si ndox dafa bëri wala koo xamante ni activité bi dafa nekk activité boo xamante ni dafa Euh, xaw a nekk lu tar muy dox si bii bu tar kooku tamit moom muy gën a soxla lu muy consommer ci ndox en même temps ki nga xamante ni aussi euh, moom dafa nekk ndaw kooku tamit day soxla ndox lu bëree bëree bëri su ko defee rek liggéeyam di gën a am solo ci harmoniser boobu muy def ci diggante organes yi nekk si yaram bi mais aussi dafay ŋàbb oxygène parce que ku ne xam na ne ndox ñaari atom hydrogène ñoo ko ñoo ko ñoom ñoo ko composé ak benn atome bu oxygène moo tax loolu tamit da koy mayaale benn Euh, liggéey bu am solo pour di mën a am ci am ci yaram bi oxygène bi nga xamante ni dafa dafa doy parce que yaram bi des fois comme ni muy nooyee si ngelaw dafay def lu ñuy wax tanafus lahawi maanaam nooyi boo xam ne du soxla ngelaw des fois nit ki suy def benn activité bu am bu am bu am doole yaram bi ngelaw bi mu nooyi du ko doyee te day def beneen beneen nooyi boo xamante ni si cellule bi la ko jaaree te loolu mu ngi ko mën a amee si oxygène bi mooy waral des fois nit su defee benn benn euh, activité nga gis muscle bi taxaw wala mu crampe parce que moment boobu noonu nooyi bi nga xamante ni yaram bi da koy def sans oxygène dafay jur benn acide acide lactique boo xamante dafay nekk si yaram bi moment boobu noonu mooy tax tànk bi dafay taxaw wala loxo bi taxaw ba acide boobu seey mën a continuer waat activité donc kon beneen solo bi nga xamante ni ndox mi am na ko mooy dafa am yeneen ferñeent yoo xamante ni maa ngi ko limaale woon ci ferñeent yu ndaw yi maanaam ferñeent yi nga xamante ni yaram bi du ko soxla ci quantité comme ni muy soxlaa protéine ak glucide ak euh, ndox mënu koo ñàkk aussi ndox mi da koy seelaale di ko yóbbaale ci biir mu nekk lu ñuy wax les sels minéraux yi nga xamante ni ndox mi da koy soxla ci biir lu mel ni ay calcium potassium magnesium sodium yu yooyu yëpp yaram bi da soxla ci biir ndox mi moo koy moo ko koy jox kon donc euh, liggéey bu am solo boobu boobu la ndox di def ci yaramu doomu doomu aadama donc suñu jógee ci ndox moo nekkoon ki nga xamante ni moom moo tëj moo cadré ferñeent yu mag a mag yi nga xamante ni yaram bi da koy soxla si quantité bu mag a mag moom lañ tuddee macronutriments yi nga xamante ni yaram bi da koy da ciy da ciy da ciy basé wu lu bëree bëree bëri dañu dugg si yeneen beneen pàcc bi mooy yi nga xamante ni yaram bi soxla na ko waaye soxla wu si lu bëri lu mu si soxla tuuti la waaye it su ko amul su ko amulee dina am jafe-jafe pour moo mootale liggéeyam moom lañ tuddee vitaminat moom lañ tuddee les vitamines aussi moom lañ tuddee les minéraux yaram bi soxlawu ci lu bëri tuuti la ci soxla waaye su ko amulee dina jur ay ay jafe-jafe ci liggéeyam parce que vitamine c euh, muxaziyaat suxra yooyu noonu élément yu noonu lu ñuy liggéey mooy dañuy jàppale yaram bi pour mu mën a résister feebar yi nga xamante ni du maanaam alimentation général dafay jàppale yaram bi ci feebar yi nga xamante ni du wàlle parce que dafa am ñaari feebar feebar buy wàlle feebar buy wàlle parce que feebar buy wàlle moom si biti la jugee beneen virus moo dugg ci yaram bi def ko fa wala bactérie dugg ci yaram bi def ko fa loolu mooy tuddee al amrad al mordiya mais nag ay alimentation dafay dafay dimbale yaram bi si feebar bu di wàlle feebar bi nga xamante ni li koy jur mooy benn tege témbe boo xamante ni am na si liggéeyam si biir nu ñu war a jokkalantee liggéey bi ni ñu war a harmoniser ak taxawaay bi ñu war a am pour mën a nekk yaram bu normal di liggéey normal di xalaat normal di màgg normal di defar lu lu yàqu si biir normal di di attaqué di ànd di xeexandoo lépp loo xam te ni ñëw na pour lor yaram bi normal donc ñoom tamit lu am solo solo lañu la ñuy la ñuy joué foofu noonu waaye li ci am solo mooy ñoom dañu am spécialiste maanaam kenn ku ne li ngay liggéey loolu rek ngay liggéey parce que bu ñëwee ba ci vitamines yi li tax ñu ñu insister pour di ko pour di ko di ko wutale mooy vitamine B li muy def vitamine A du ko def mooy famille bêta carotène ñoom ñëpp duñ ko di ko def dañu seen liggéey dafa am dafa spécialisé ku nekk ak ak li nga xamante ni loo ngay taxawee si si yaram mais bu ñu ñëwee ñu njëkkee si ñoom mu am ñaari pàcc pàcc bu ñuy wax vitamine ak pàcc bu ñuy wax sel minéraux yi suñu ñëwee ci sel minéraux yi moom moo mujj dañu njëkkee si li nga xamante ni mooy vitamine yi am nañ fa ñaari pàcc aussi am nañ vitamine yoo xamante ni dafay lëkkaloo ak graisse am yoo xam ne dafay lëkkaloo ak ak ndox am na vitamine yoo xam ne du seey si ndox mukk am yoo xam ne dafay seey si biir ndox suñu xoolee yi nga xamante ni dafay lëkkaloo ak diw wala graisse mooy vitamine A ak D ak e ak K ñu tënk ko si ADEC mooy ñeenti vitamines yoo xamante ni dina jafe loolu nga fekk ko si légume wala si fruit boo xamante ni amul dara benn quantité bu ndaw si diw wala si graisse yooyu nag ñu ngi koy fekk lu bëri si euh, reesu jën res yi nga xamante ni dafa nekk si jën aussi dañ koy fekk ci meew dañ koy fekk aussi si euh, nen wala peu de nen bi nga xam ne dafa jaune partie bu jaune bi ci nen bi dañ ko fay fekk am na ci persil lu riche la ci persil aussi tamit dinañ ko fekk si li nga xamante ni moom lañu tuddee supame si si si suñu légumes yi mu nekk vitamines yoo xamante ni euh, li si ëpp euh, graisse yi lay lay lay lay lay lënkaloo vitamines yi yooyu noonu li gën a am solo si li muy liggéey mooy dafay dimbale yaram bi si moment bi nga xamante ni si lay xeexee attaques yi parce que day day renforcer li ñuy wax al jihaz ad difaa mooy jihaz bi nga xamante ne wala masul an difaa mooy jihaz bi nga xamante ne liggéeyam du dara si yaram bi lu dul xeex lépp loo xamante ni attaque la bu ñëw contre yaram bi te ñu gën koo tënkee mu gën a fes si kurayaatil dammil bayda mooy eh, doñ yu deret yu yu weex yi nga xamante ni si moom lay nekk mu nekk jihaz boo xamante ni loolu rek mooy liggéeyam ba pare yàlla def si lu lu yéeme te doy waar mooy dafa am mémoire bu mag a boo xam ne du fees parce que chaque jour dafay fàttaliku moom noonam bi lan la ko gañe woon bu xeexee ak feebar ba gañe ko dafay denc ci biir euh, saafara si nga xamante ni moom la jëfandikoo woon wala méthode de défense bi nga xam ne moom moom la jëfandikoo woon ba a génn la virus dal la loolu lu jafe lu jafe lay doon am na feebar yoo xamante ni boo si génnee la mën a dalaat parce que déjà da koy am denc ko moom lañ tuddee vaccin moom lañ développé ba mu nekk vaccin nga xam ne nit ki mën na ko utiliser avant feebar bi di ko dal su ñëwee mu mën ko mu mën ko mën ko aar donc ñoom nag euh, ADEC boobu dañuy renforcer loolu di ko jàppale si liggéey boobu. beneen bi mooy aussi vitamine bi nga xam ne dafay seey ci ndox moom du lëkkaloo duñ ko fekk ci diw wala graisse wala lépp lu niin mais ci lu niinoo lañ koy fekk lu gën a bëri si légumes yi wala si fruits yi fa lañ koy fa lañ koy fekk buñ ci génnee yenn fruits yi nga xamante ni peut-être am na dara si graisse lu mel ni avocat comme ni ma ko waxee woon sànq wala am na dara si diw yu mel ni doom yi au lieu que mu nekk si fruits yi mais am par exemple tàndarma euh, lekk bi moom mooy yaram bi mais xoox bi am na diw am na lu ñuy wax diw ma nañ ko génne si biir donc vitamine yooyu di nekk benn chaîne bu gudd bi ci gën a am solo si yaram bi te yaram bi di ko soxla lool mu nekk vitamine B ak famem am na vitamine B1 am na 2 am na 4 am na 6 am na 7 am na 9 am na ba 12 yooyu yëpp ay vitamine D la am vitamine C vitamine C yi nga xam ne ñu ngi koy fekk si xemdiyaat maanaam ñu ngi koy fekk si fruits yi nga xam lu mel ni genre ay orange mandarine limon euh, bisaab Euh, daxaar yooyu yëpp day am si day am dañ koy fekk si ñoom en général bépp firi boo xam ne am na benn genre foroxaay acidité boo xam ne dañ koy fekk si si biir beneen bi aussi mooy dañ koy fekk si épices yi nga xam ne ko utiliser suñu togg lu mel ni ay ay kaani des fois dañ ko ci fekk wala ñu fekk aussi si euh, euh, poobar yi nga xamante ni soxna yi dañ koy far di utiliser su nga xamante ni dañuy dañuy togg donc bu ñu xoolee ñaari parties yooyu noonu dinañ gis vitamine boo xam ne dafay lëkkaloo graisse ak ak boo xam ne dafay lëkkaloo glucide bi la ñuy delluwaat yi nga xamante ni moom mooy Euh, ay légumes la ñu doon ak ay fruits wala ay céréales foofu lay gën a gën a nekk mais ñoom ñaan ñëpp yaram bi da leen soxla daleen soxla si ñaar si défense bi comme ni ma ko waxee sànq aussi da soxla ci màgg parce que développement yaram ak màgg vitamine da ci ànd dañu ak lu ñuy wax enzyme ak hormone ñoom ñoo ci harmonie di ci liggéey liggéey bu am solo moo tax yenn xeetu feebar yi wala yenn xeetu euh, jagad yu bëree bëri dafay dellu si manque manqué vitamine des fois sax dama ko tooñee suñu waa kër yi des fois bu ñu indee ordonnance wala ñu hôpital boo ñëwee di xool maa nga ci gis garab ay vitamine nga ci gis doo ci gis sax garab boo xam ne day faj dara soit li ci ëpp ay vitamine lay doon te loolu su fekkee ne am na lu muy tegtal day day dafay xool dafay tegtale ne war nañu saytuwaat xool alimentation parce que alimentation bu normal dina la euh, épargnel yenn effort yu bëri yoo xam ne danga ko def pour faju wala pour jël ay ay garab donc bu ñu jëlee ci vitamines yi ak seen solo ak seen source ñu dem si li nga xamante ni moom mooy ñu tuddee les sels minéraux maanaam yenn ferñeent yoo xamante ne tamit yu am solo lañ ci yaram bi comme comme ñoom donte ne comme ni ñu ko junjee woon dañ ko boole ci partie bi néew doole yi parce que yaram bi soxla aussi du bëri waaye lim ci soxla lu tuuti tuuti tuuti yëpp mais bu ko amul tamit dina am jafe-jafe pour def liggéeyam lu mel ni calcium chlorure magnésium potassium yëpp ñu ngi ko wax sànq. soo demaa si biir tamit dafa amaan ñoom seen biir ñaari pàcc su nekkee calcium chlorure magnésium potassium aussi yaram bi da koy soxla lu bëree bëree bëri ak sodium bi nga xamante ni moom nekk xorom bi ñu utiliser si togg yi wala xeet la si xorom yi nga xamante ni moom la utiliser si togg yi yooyu yaram bi moom lay gën a soxlawaat si yeneen nga xamante ay xeetu euh, ferñeent lañ mais dañu xaw a diis lu mel lu ñu tuddee nixaas fer wala lu ñu tuddee euh, yuut wala zinc yooyu yëpp day nekk yoo xamante ni yaram bi da koy soxla mais tamit si quantité bu gën a bu gën a ndaw mais ñoom ñëpp dañuy ànd si liggéey bi nga xamante ni wax nañ ko mooy défense mooy màgg mooy dimbale yaram bi mu jug mu def see activité ay physiologie beneen bi suñ suñ si dugaatee moom la ñuy fi ñu ko mën a jëlee lu ñuy wax Sénégal yàlla mel nañu si benn source bu source bu am solo te te te te te yomb mooy euh, bisaab mooy bisaab bi nga xamante ni bisaab bu verte bi xob bi dafa riche trop ci euh, sel minéraux dañ ciy fekk quantité bu bëree bëri aussi tamit si xeetu euh, ñebe yi moo xam ñebe bi local bi la wala ñebe haricot la wala petit pois la yooyu xeet yooyu ñu tuddee bu xuliyaat mooy ñebe yëpp dañu riche aussi ci ay almaadin aussi am na si dawaa ji ni maanaam ñanaaw yi yi nga xam ne dinañ faral di naaw lu mel ni ay pitax ay ginaar yëpp yi nga xam ne dañu am dunq rek seen dawal aussi dafa riche ci loolu aussi ak bépp légume boo xamante ni légume de feuille la maanaam légume boo xamante ni feuille bi lañuy la ñuy parce que aussi gàncax yi soo xoolee am na si yoo xamante ni ren bi ngay soxla pour utiliser ko lu mel ni euh, carotte wala lu mel ni euh, pomme de terre wala lu mel ni wala lu mel ni pataas am na si yoo xamante ni tamit tontóor bi ngay jël pour utiliser ko am na si loo xamante ni jëmmi xob bi si boobu moom nga moom nga soxla lu mel ni lu mel ni genre salaat euh, lu mel ni aussi nutrati bi bëri xob yi rek supame mooy légumes yi nga xamante ni xob bi moom la ñuy moom la ñuy ciblé pour mën ko jël di ko def comme alimentation yooyu yëpp am am na ci aussi tamit dinañ ko fekk si céréales yëpp si pepp yi xeetu pepp yëpp dugub mboq ba si xeetu bopp yëpp mën nañ ko fekk ci biir en même temps aussi dinañ ko fekk si si firwi yi donc kon boobu mooy pàcc bi nga xamante ni mooy yeggali pàcc bu njëkk bi mooy si ferñeent yi nga xamante ni yaram bi da koy soxla mais si bu ndaw ñi nga xamante ni ñoo ko ëmboon mooy vitamines yi ak les sels minéraux ñoom ñëpp boo leen boolee ñuy def liggéey bu am solo si yaram bi ci wàllu défense ci wàllu développement ci wàllu defaraat tabaxaat ci wàllu aussi dimbale yaram bi mu mën a am harmoniser bi mu soxla ci activité physiologique mu des loo xamante ni euh, tardivement lañ ko boole ci alimentation yi loo xamante ni boole wuñ ko si woon comme les produits alimentaires mais mais tardivement dem nañ ba science mujj na xam njëriñ bu am solo boo xamante ni am na ko si yaramu doomu aadama ñu mujj ko boole ci ñoom moom la ñu tuddee mudaadaat al aksada wala ñu koy waxee antioxydant mooy màdd yi nga xamante ni ñoom ñooy tax ba vitamines yi nga yi nga jot yi nga jot a gañe mu bañ a def lu ñuy wax benn benn réaction chimique bu ñu tuddee al aksada maanaam am relation ak beneen matière ba ba ba mu soppee aksada suñ ko mënee suñ ko mënee expliquer mu gën a mu gën a simple soo jëlee par exemple lu mel ni euh, pomme wala lu mel ni pomme de terre wala lu mel ni euh, pataas soo ko soo ko daggee te te isolé woo ko ak ak jant ak ak ngelaw li maanaam su fekkee ne mu ngi am accès ak oxygène day am benn réaction boo xam day am da ngay seetlu dafay ñuul xam naa loolu suñu mbokku jigéen dinañ si bàyyi xel soo ko tegee isolé woo ko ak oxygène tëjoo ko wala dafa ko si biir ndox da ngay gis ne dafay commencé di di ñuul di la jural beneen matière boo xamante ni mu ngi juddoo si jëflante bu muy jëflante ak oxygène bi nga xamante ni mu nekk si ngelaw li donc suñu xoolee yooyu tamit day nekk ay ay ferñeent yu am solo yoo xamante ni dafay jàppale nit ki di ko aar si feebar bu doy waar bu ñuy wax cancer parce que cancer en général mu ngi juddoo si matière yu étranger yi nga xamante ni euh, day dugg si yaram bi te bokku si dafay ànd ak lekk bi ta te bokku si mu nekk matière yu am solo yoo xamante ni nit ki su fekkee ne mu ngi koy utiliser mën na ko aar lu bëree bëree bëri su ñu tuddee xalaaya sarataaniya mooy ay cellules yoo xamante ni dañu dañu dañu déjà dañu dañu am lu ñuy wax cancer euh, ci lañ génnee vitamine C ber ko ak vitamine D génne leen ber ber leen ko boolewaat leen si ñoom parce que ñoo demee gis nañ ne liggéey bu am solo bu ñu def ci côté boobu rawatina vitamine D donte ne vitamine D nekkul vitamine boo xam te ni siiw na lool ci lekk yi wala siiw na lool si mais aussi euh, ñu ngi ko gën a mën a amee si jant bi te des fois ngay dox jant bi di la dal sa yaram bi daf lay day tax nga mën a am vitamine D sa yaram bi da siy mën a jot facilement aussi danañ ko mën a am ci euh, café nañ ci mën a am antioxydation danañ ko ci mën a am aussi danañ ko mën a am si ataaya moo xam ataaya bu verte bi la comme bu ñu xam wala ataaya bu ñuul bi comme lipton bi dañ ko mën a am si biir aussi dinañ ko mën a am simil si cacao mooy cacao bi nga xamante ni bokk na si euh, meññeef yi nga xamante ni yàlla séddee na ko Afrique moom nekk na lu am solo si matière yi nga xamante ni yaram bi da koy soxla te dina ko aar si genre feebar yooyu donte ne am na nag si yeneen yenn fruits ak yenn légumes yi nga xamante ni yu fresh la rawatina légumes yi nga xamante duñ ko toog maanaam légumes yi nga xamante noonu lañ koy consommer lu mel ni ay concombre wala euh, kaani yi nga xamante ne mooy beneen kaani poivron bi wala li nga xamante ni moom mooy salaat moom maanaam bépp légume boo xamante ni duñ ko toog noonu lañ koy noonu lañ koy jëfandikoo mu am tamit si li nga xamante ni lenn la si yenn yenn fawaakih yi maanaam yenn yenn fruits yi mais tasaaroowul lool bëriwul lool parce que dafa nekk loo xamante ni dafa am beneen liggéey bu am solo boo xam ne da koy def si yaramu doomu aadama du ko aar si wàll cancer mais na ñu bàyyi si xel yooyu oh, dañuy moytu di ko di ko di ko jëfandikoo suñu lekkee ba pare dañu moytu di lekk ba pare rek automatiquement nga naan café wala lekk ba pare naan naan ataaye parce que soo leen naanee ñoom dañu am benn benn rapport bu ñu am ak lekk bi nga mujjee lekk créer ay matières yoo xamante ni dafay compliquer yaram bi du ko mën a reesal da koy mujj génnewaat maanaam li nga li nga lekk ba pare di consommer loo xam ne dafa riche trop ci fer parce que ñoom ñaar bu ñu ñëwee dañuy dañuy lëkkaloo jur benn matière boo xamante ni dafay dafay compliqué lu ñu tuddee al murakabat asabuniya yaram bi dafay mujj génn waat su ko li mu lekk lépp du si mën a jëriñu parce que yaram bi li nga xamante ni soxla ko la mën a jël li mën a jël après da koy mujj da koy mujj génnewaat donc loolu moo nekkoon partie bu mujj bi nga xamante ni amoon nañ ko ci euh, ferñeent yi nga xamante ni am na su ko defee ñu toxu rek dem si suñ dernière partie mooy régime alimentaire équilibre parce que régime alimentaire dafa dafa yaatu bëri na ay façon dañ si jukki woon di rek waaye lu nekk ku nekk ak régime alimentaire am xale am na régime alimentaire mag am na ko jigéen am na ko kuy nàmpal am na ko ku nekk jigéen jur am na ko ku feebar wala ku def opération ku ne am nga moom la ànd dañ si jukki standard bi nga xamante ni na moom moo ñu gën a touché suñu xoolee ci al ghiza al mutawazin euh, pour ñu mën ko am li ñuy njëkk a def mooy ñu moytu di jëfandikoo yenn siikar yu bëri yi maanaam siikar nañu moytu di ko jëfandikoo parce que comme li ma la wax yaram bi xëy na xëy na avant muy dugg ci biir mën na tudd fir wi mën na tudd légume mais su duggee ci biir yaram bi beneen tur lay am ci beneen forme lay nekkee parce que dafa am lu yàlla def ci restu doomu aadama moom la ñu tuddee insuline ci restu doomu aadama lay nekk insuline boobu noonu moom dafay wër ci yaram bi saa yu lekkee suukar mu ñëw indi forme glucose da koy mujj changer def lu ñuy wax glycogène glycogène boobu noonu moom lay denc maanaam moom lay denc ci res bi def ko énergie mu nekk benn monnaie boo xam ne da koy yor moom lay yën genre monnaie wala xaalis boo xamante ni moom lay yaram bi di passé pour mën a jëflante seen biir glycogène boobu noonu su nit ki def activité da koy joxaat da koy indiwaat defaat ko léegi suukar mu jox ko énergie bi maanaam moom da day da koy transformé di jëm nii di jëmaat ne day jël suukar bi def ko glycogène jëlaat ko defaat ko sucre moment bi nga xam ne yaram bi dafa reposé deful dara moom da koy def glycogène denc ko su moment bi def activité mu delloo ko suy daw wala muy xalaat wala muy jàng wala muy liggéey wala muy def dara da ko koy da ko koy joxaat mais nag insuline boobu noonu su fekkee ne chaque jour mu ngi defar di denc nga koy dugalaatal day dem ba quantité bi nga koy jox du ko attan du ko mën a transformer su boobaa ci la feebaru suukar di juddoo moom la ñuy wax diabète du dara lu hormone bi nga xamante ni moo tudd insuline nekk si yaram bi wara a organiser organiser si kër yi si ni ñu koy jëlee ak ni ñu koy dencee ak ni ñu koy utiliser waat moom mooy dem ba li nga koy dugalal attanu ko mënatu ko comprendre su ko defee da ngay obligé di jël jël insuline nga mujj jël jël mu nekk hormone boo xam ne ñu ngi ko développé si sëll yu ndaw yi dañ ko defaree pour mën ko am di ko développé ko ba mu nekk genre garab ñu koy jox nit ñi ñu koy piquer mais du la lu hormone rek boo xam ne dafay dafay jàppale yaram bi si ni muy gérer suukar a joxaat bi suy def beneen activité ñu moytu foofu bañ a ëppal si utiliser loo xamante ni dafa am sucre en même temps aussi ñuy yi nga xam ne defar parce que am na sucre naturel comme yi nga ne muy jugee ci kaan am na aussi lu ñuy waxee genre betterave moom tamit suukar yàlla def na ko si dañ ci dañ ci defaree su dañ ci defaree suukar mais aussi am na yeneen suukar yoo xamante ni dañ koy defar suukar yooyu dina la jox neexaayu suukar bi lay jox mais composant am ni mu ni mu bindoo ak ni ak ni yàlla bindoo suukar dañu am difi différence loolu ñu bëri dañ ko utiliser parce que dafa fort dafa am doole parce que benn kilo suukar bi li muy suukar ci suukar naturel bi euh, lële maanaam suukar mu xaliyaat bi bi ci gën a siiw muy espartam ñoom li ñuy suukar dina mën a tolloo lu 35 su kilo suukar wala suukar si si kii bi ci gën a néew doole nag am na si yu dem ba 200 ba 600 am na yoo xamante ni seen benn kilo mooy mooy équivalent 600 kilos si beneen suukar donc ñu bëri dañuy utiliser loolu si yi nga xam ne dañuy defar ay produits di ko jaay parce que dañuy dañuy ragal peut-être dañuy daw. Euh, fere wala ñu jënd suukar dañuy mujj utiliser beneen sucre a yombal seen liggéey mu nekk loo xamante ni te yooyu yëpp cité nañ yoo jëndee lekk nga gis si e, e boobu am numéro da nga gis e 220 e 200 e 600 700 xamal ne yokku ci utiliser na waa ji mu xalliyaat maanaam luy utiliser mais utiliser bi nga xamante ni moom moo tënk lépp luy alimentation di ko di ko di ko réglementé mu ci biir am na tamit ISO deux cent vingt mille boo xamante ni Sénégal bokk na ci def na ko ci biir muy liste ko ñoo xam ne dañ ko war a moytu parce que gaañ-gaañ bi muy yoral si doomu doomu yi nga xamante ni duñ def activité maanaam bu fekkee da nga war a nelaw wala a noppalu nga di moytu yi nga xam ne am sucre parce que moment boobu tamit taux de sucre parce que defoo activité mais xëy na sax su nekkee da nga xëy ndekkee ko war a xëy dem liggéeyi bala nga ñëw mën nga ko lakkaat si activité yu ngay def mais ñu moytu di ko utiliser si moment boo xam ne duñu def benn benn activité beneen bi aussi ñu moytu euh, lekk yu ñu defaraat comme sànq maa ngi koy junju si si œil parce que nit ñi dañuy defar ay goût comme ni ñuy defaree suukar di defar ay couleur di defar ay ay ay parfum di defar euh, façon lekk boo xamante ni mën nga ko yaakaar mën nañ ko defar sans lekk boobu di si di si di si bokk maanaam par exemple soo jëlee misaal am ñoo xam tey bu ñu defar jus mangue mën nañ ko defar ba pare bu ñu la ko joxee da nga naan lii jus mango la mais xollitu mango sax mën na si bañ dem demu si parce que dañuy jël acide boole kook comme sucre yi ma lay wax boole kook li nga xamante ni moom moo koy faral yaa ngi dégg lu mel ni en général ñu si bëri gomme lañu ñu suñ ko mélanger dañuy am benn xawaam boo xamante ni day day joxe lépp day joxe couleur bi joxe xet bi joxe joxe acidité acidité bi donc moo tax nañu moytu lekk yu ñu defaraat ñu gën a dem si lekk naturel yi loolu nag lu yomb la si ñun parce que en général ñun li ñuy jënd yëpp jege nañu trop mën nañ ko defar ci lu gën a moins cher defar ko ci lu ëpp sécurité loo xam ne suñ suñu bët lañ ko defaree amul lenn luñ si yokk rawatina suñu mbokku jigéen ñi nga xamante ni gëm nañ ne tant que defuñ dara si li ñuy defar rek ah, du du baax mais yooyu ngay ajouté yëpp ay matières yoo xamante ni ay équivalent dañ ko defar te matière yu si ëpp dafay dafay lor yaramu doomu aadama kon ñu ñu moytu loolu bu baax a baax. aussi tamit ñu moytu yenn xeetu bouillon yi parce que dafa am benn euh, xorom bu ñu utiliser bu tudd gulu tomate gulu tomate aussi comme ni ñu waxee aspartame ni muy def ci suukar yi noonu lay moom noonu lay defee ci xorom yi deneen leen di imiter parce que même rek boo xoolee su nekkee xorom nga di togg mën nga def xorom defaat defaat yokk lu bëri mais su nekkee bouillon nga utiliser da ngay gis ne benn kib bu ndaw mën na la xoromal cin loolu nag dafa am gulu tomate bi ci nekk moom moo ko waral te gulu tomate boobu dafa fort kooku dafay waral tension bu buy buy buy perturbé wu dafay bu duggee si yaram dafay perturbé tension nit ki du nekk tension bu normal soit da koy yéegal li ci ëpp da koy yéegal des fois mën na ko wàcc sans départ ci état de santé nit ki nañ ko moytu beneen bi aussi mooy euh, ñuy moytu di jëfandikoo benn façon lekk kese parce que comme ni ma ko tënkee sànq moo tax ma njëkkee ko lu nekk ak fa nga koy fekk fi vitamine bi fi muy nekk glucide bi fi muy nekk protéine bi fi muy nekk yooyu yëpp bokkuñu place mais bu fekkee ne yow da nga jël benn xeet alimentation di ko utiliser comme par exemple ñu jël misaal nga jël ceeb ceeb chaque jour ngay lekk kon dina am yu bëri yu la yu la raw yoo xam xamante ni amul si ceeb te doo ko mën a am dina waral si yow feebar yu bëri yooyu am parce que yow ceeb rek ngay alimenté wu te ceeb amul lépp ceeb parce que ceeb si glucide la bokk ceeb bokkul ci protéine du la ko mën a jox bokkul aussi ci duxuun mun la ko jox bokkul tamit lu dul ci li nga xamante ni mooy glucide moo faaw li ngay lekk muy wuutee nga defal sa alimentation muy wuutee ngay jëfandikoo ndawal bu weex di jëfandikoo ndawal bu xonq di jëfandikoo nen di jëfandikoo meew di jëfandikoo fruits di jëfandikoo légumes mu nekk loo xamante ni lu lu changé la muy tourné di wër mais pas nga ciblé yenn yoo xamante ni rek da nga koy da utiliser loolu ñu ñu génn si ñi nga xamante ni dañu am cas spécial ñi nga xam ne peut-être dañu dañu moytu yenn façon lekk yi parce que yooyu des fois seen feebar moo koy laaj mais su fekkee ne loolu gaaru ko na fexe di wuute si li nga xamante ni da koy jëfandikoo si wàll lekkam beneen bi aussi mooy di am quantité bu doy si ndox parce que bëri na feebar yu bëri yoo xamante ni lu mel ni feebaru yax la mooy mooy ñagas-ñagas bi nga xam day am ci diggante yi nga xamante ni la ñaari yax di daje di crochante woo li koy waral bëri na si mooy ñàkk a naan ndox parce que ndox bi dafay seeyal sel yooyu nekk foofu maanaam xeetu xorom yooyu nekk si diggante bi da koy da koy seeyal pour yaram bi man si jot rein yi man si jot man ko man ko génne waale mu mën a génn mais su fekkee ne nit ki du am du naan lu doy si ndox loolu dafay concentré foofu ba day jur xusu na maanaam buy tàllal diggante fu ñaari yax daja da ciy am jafe-jafe trop loolu tamit ñàkk utiliser ndox mu doy da koy am en temps aussi activité physique pour mu am normal yaram bi lépp di di normal faaw yaram bi am ndox mu doy doy doy doy doy moo tax ñàkk jëfandikoo ndox baaxul en général ñu ñu si ëpp ñun bu ñu feebaree boo demee hôpital li ñuy njëkk def mooy defal ndox sa yaram bi parce que déjà da nga koy manqué kon pour nga am régime alimentaire bu bu bu bu équilibre faaw da ngay naan lu doy doy doy si si ndox beneen bi aussi mooy euh, ñuy respecter suñu repas yi maanaam euh, su fekkee ne yow da nga war a xëy liggéey par exemple moment boobu nga war a jël repas bu gën a diis. mais ñun dafa mel ni contraire bi la ñuy def bàyyi bay tëdd ba bay reer ñu ñu ñu reeree ndawal wala lu am diw wala lu niin loolu loolu danger gën a ko rëy parce que yow moment boobu boo lekkee pare da ngay dem tëddi xëyiwoo liggéeyoo defoo dara dangay dem nga tëddi wala nga toog su boobaa euh, moom mooy jur yu bëree bëri graisse bi dana kawe si yaram bi su ko si mooy jur crise yu bëri wala des fois nit ki tëdd yeew yeewu yeewaale tension wala yooyu yëpp li koy waral mooy que ne quantité de lekk bu bu diis bi nga jël te waroo koon jël ci heure boobu kon nañu nañu rangé yi gën a diis yi nañ koy jël si suñuy xëy yu yu yu yamamaay yi ñu koy jël si bëccëg bi yu yu oyof yi ñu koy jël si guddi gi bala ñoo nelaw ñu jël loo xamante ni lu oyof lay lay doon rawatina su nekkee si euh, li nga xamante ni moom mooy céréales yi maanaam mooy pepp yi moo gën a moo gën a baax beneen bi aussi mooy tamit ñuy bàyyi xel ci fruits yi fraîches yi di ko utiliser parce que tamit am na rôle bu mag a mag boo xamante ni da koy jouer ci yaram bi pour di ñu raxasal yenn yi nga xam ne day lonk si yaram bi wala mu des si te dafa war a dem ñu bàyyiloo xel tamit li nga xamante ni mooy dugub yi mooy pepp yu mat yi maanaam lu mel ni pepp par exemple lu dugub ñu koy utiliser parce que tamit comme sànq li ñu doon junj si yenn graisse yi nga xamante ni bu ñëwee si yaram bi dafay toog di di créer ay problème si circulation sanguine bi yooyu suñu utiliser dugub bi mën na ko dindi lu mel ni fonde lu mel ni laax yooyu tamit dafay raxas day raxas euh, tiwo yooyu parce que moom tamit am na capacité pour jàpp ko pour pour xëccaale ko pour forcer ko dugal ko ci ay ay ay ay ba soppi ko ba mën ko génne déplacé ko déplacé ko foofu benn bi aussi mooy ñu di bëri di utiliser si maanaam légumes yi ñu ñu ñu moytu du ko togg parce que sànq maa ngi koy jund si vitamine A mooy bêta carotène yi famille boobu yëpp dañu ragal tàngoor des fois su nekkee da ko consommé ci ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu ñorutee nga xam ne noonu la fraîché ci ngay gën a mën a jëriñoo soo ko toggee parce que am na si yoo xamante ni bu ñu passé cent degré rek vitamine dafay dafay dee du amati du amati njëriñ don kon nañu nañu gën a di consommer légumes yu verte yi maanaam légumes yi nga xamante ni du jëfandikoo du jaar si taal duñ ko mën a euh, do duñ ko mën a du jar ñu koy togg en temps tamit ñu utiliser li ñuy tuddee al asaari at tabi'i maanaam jus naturel yi parce que jus naturel yi bëri na ay façon comme ni ñu ko amee suñu produit local locaux yi bëri na même aussi légumes yu bëri mën nañ ko def jus jus persil baax na trop si si deret baax na si xol baax na aussi si euh, wàllu tension jus concombre yooyu yëpp mën nañ ko def di ko transformer di ko def ay jus jus navedaay aussi lu am solo la lu baax la si yaramu doomu aadama di di ko di ko équilibrer donc kon li gën a am solo daal mooy nañu bàyyi nañu nañu xam euh, source li ñuy li ñuy jëfandikoo fu mu jugee mu nekk ay alimentation xam ne amul benn modification kenn modifié wul couleur bi wala goût bi wala xet bi benn ñuy moytu di ëppal si yenn lekk yi nga xam ne dafa sucré lool wala mu sele lool ñu moytu aussi di mujjee jëfandikoo palaa yu diis yi balaa ñuy nelaw ñuy fexe di jël plat yu oyof yi en même temps ñu moytu aussi di dëkkoo jëfandikoo benn façon lekk rek parce que mbir yi dafa wuute faaw ñuy laal fa nekk pour ñu mën a am fereñ ferñeent bu nekk fi mu nekk Euh, en même temps aussi ñu jël yaram bi di ko jox quantité boo xamante ni euh, soxla na ko si ndox donc yaakaar naa principe suñu fexee ba mën ko intégrer suñu suñu régime alimentaire dinañ am alimentation boo xamante ni bu bu mucc bu mucc ayib la dina nekk loo xamante ni dina mën a servir yaram bi jàppale ko mu def activité am jàppale ko ñu mën a am euh, harmonisation seen biir jàppale ko aussi tamit mu mën a défendre yaram bi si lépp loo xamante ni attaque la donc yaakaar naa boobu moo nekkoon suñu dernier point Euh, ñu leen di sant di leen gërëm si teewlu bi yëpp euh, di ñaan yàlla lépp li nga xamante ni wax nañ ko fi mu nekk lu leer lu ñu mën a jëriñoo lépp lu ci am ci ay manqué manqué mu ñaamasal ñu ko ba mu baax di continuer di di leen santaat ñëpp di leen gërëmaat euh, di sant encore une fois ki nga xamante mooy Oustaz Bachir nga xamante ni moom moo nekkoon buntu si suñu buntu si daara ji parce que yonent saa dafa wax ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi yàlla jox ko ajr bi parce que li lépp si bidaaya bi moom la woon di sant ñi fi teew ñëpp professeur yëpp di sant proviseur Aydara mi nga xamante ni moo jiite suñu lycée bi mu fi teew ak professeur yi ñu ànd ak yëpp kenn desul ak suñu élèves yëpp di leen sant di leen gërëm di sant sama naataango bi di sant aussi encore waa daara ji di feddaliwaat suñu ziar ak suñu ñaan ci sëñ Muntaxa yàlla may ko wér may ko kàttan ba mu mën a yeggale lépp li nga xamante ni naal na ko di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Eh, sëñ Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax macha allah waxtaan wi am na solo lool eh, njort naa ne ñi fi teewal ñëpp jëriñu nañ ci waxtaan wi bu baax a baax eh, li koy wane rek teewlu bi nii rek ak tekkaaral bi wane ne ni ñi jox nañ importance lool li nga doon wax te tamit leer na niveau bi xëy na mënoon na gën a kawe waaye ngir sama ñi mel na man mën a dégg waxtaan wi wàcc na ko ba ñëpp mën see jëriñu kon macha allah yal na suñu borom yokk xam-xam bi yal na suñu borom yokk wér gi euh, ba xam-xam gi gën cee mën a jariñ mbokki jullit yëpp comme niñ ko doon déggee ñun ñëpp rek mu ñu doon waxtaanal ci wàllu alimentation commencement bi fàttali nañu xamal ñu ne relation doomu aadama ak alimentation relation la boo xam ne nekkul ne doomu aadama bi moo ko tànnal boppam waaye dafa doon loo xam ne manta ñàkk doomu aadama dafa am nu ko yàlla binde doomu aadama bi dafay jóg dafay dem doom adama bi dafay noyyi doomu aadama bi dafay euh, def li ñuy wax euh, production da koy def doomu aadama bi day def ay activité physique yu bare yoo xam ne da koy def te loolu lépp pour mu mën a sotti faaw alimentation fekke ko kon mu doon loo xamante ne bi mënta ñàkk ci doomu aadama ci biir waxtaan bi tamit mu leeral ñu xamal ñu tamit njëriñ yi nga xam ne alimentation amal na ko yaramu doomu aadama parce que yooyu ñu tudd xam ne doomu aadama def pour mu def ko alimentation am waaye tamit mu doon loo xam ne dafay mën a défendre yaramu doomu aadama bi ci yenn jàngoro yi waaye tamit di defar yi nga xamante ne bi ay gaañu-gaañu wala ay yàqu-yàqul yoo xamante ne fi am ci biir yaram bi loolu lépp alimentation dañu koy jëriñ waaye nag ci biir waxtaan bi mu xamal ñu tamit nekkul ne euh, buñ ne alimentation rek mooy nga lekk jël biir bi def ko ba fees waaye dafa am loo xamante ni moom lañ soxla moom la yaram yi soxla te mu nekk ci biir alimentation bi moom la ñu doon leeral mu am yoo xamante ne bi yu mag la ak yoo xamante ne bi yu ndaw la lu mel ne ndox mi lu mel ne glycide bi lu mel ne protéine yi lu mel ne graisse bi yooyu mbir la yoo xam ne yaram bi da ciy soxla lu bari benn bu mu wax ñu fan la nekk fan la fan mooy source bi nga xam ne boo fa demee fa koy fekk te yaakaar naa yu ci baree bari alhamdulilah doon na yoo xamante ne yu jàppandi la euh, kenn ku ci ne parce que bu ñu dee waxtaan waxtaan yu mel nii ndax kenn ku ne xam na ne ñun dañoo am jafe-jafe ci wàll googu parce que ak ni nga xamante ne bi lekk noonu la demee dafa doon loo xam ne dafa am tuuti différence su ko defee nag yii nag doomu aadama bi xam ko xam ne lii fii la nekk te lii kat lii la may jariñ vitamine bi kat mën na maa jariñ li sel yi minéraux yi kat mën na maa jariñ lii euh, protéine yi lii lay jariñ su ko nga xam loolu tamit xam fi nga xamante ne bi fonk koy fekk loolu day ñëw ba ci fi nga xamante ne foofu la jeexale nga gis ne kon bokk na ci yi mu wax mooy nit ki bañ a di lekk benn façon lekk rek parce que boobaa dana am loo xamante ni dana ko am ci lek googu gaa waaye nag dana am yu bare bare yoo xamante ni bi dana ko ñàkk su defee kon oustaz ñu ngi lay eh, santaar bu baax a baax di eh, sant tamit mbokk yi fi teew yëpp xam naa dañuy joxaat eh, suñu fàllu kàddu gi su ko defee du ñàkk ay mbok yoo xamante ni am na commentaire yu ñu ci def wala ay laaj yoo xamante ni bi dañ ko bëgg indi bismillah suñu fàllu ak ay jërëjëf euh, fat euh, sas góor ci modération bu am solo boobu xam naa mu wane na rek euh, njariñ lu waxtaan wi am ba tey waa internet bi am yónnee ni fi ay laaj yoo xam ne bëgg waxtu rek laaj bi ci njëkk mooy ndax maanaam ki dee laaj mu ne lan moo lan lañu war a jëfandikoo ci booy xëdd li nga xamante ni nit ki mën na ko jëfandikoo si si si xëdd mooy lépp loo xamante ni dugg na ci glucides yi maanaam lépp loo xamante ni riche na si énergie te ba pare mu mu bañ nekk loo xamante ni dafa am acidité maanaam dafa am lu forox wala wala mu am lu niin li si gën a am solo nag mooy xam nu ñu saa sam wax ko woon par hasard mais lu mel ni tàndarma baaxam trop si xëdd rawatina su fekkee ni da nga jël par exemple nga jël meew bu nekkee liquide la wala meew bu poudre la nga seeyal ko xooli tànn bi def ko si biir dëpp ko le temps que nga xëdd di jot loolu lu am solo la si loo xamante ni lu am solo la ci nit mën na ko xëddee mais lépp loo xamante ni glucide la rek euh, dina mën a dimbal si énergie aussi lu mel ni yenn lu mel ni banaan aussi am na quantité bu bëri si énergie boo xam ne dina mën a yóbbu nit ki lu sori si jour weeru weeru mais daal xam nañ ne tàndarma moom ak meew lu am solo la si xëdd bi nga xam ne ki mën na ko jëfandikoo. jërëjëf euh, Saas ci tontu bu am solo boobu. kii day laaj mu ne koo xam ne def sport lan moo war a nekk régime am kuy def lan moo war a nekk lan la war lan la war a jëfandikoo daal lan moo régime def sport li nga xam ni moom mooy gën a am solo ci moom mooy protéine parce que dafay tabax tabax yaram mais aussi tamit dina soxla glucide parce que moo koy jox énergie bi nga xam ne dina ko mën a defee ay ay ay activités nga xam ne da koy def mouvement yi muy def dina soxla ñaar yooyu lay gën a lay gën a soxla mais ñoom ñu gën a basé wu ci protéine rawatina ki nga xam ne dafay tabax yaram jërëjëf euh, Saas ci tontu bu am solo boobu kii ba tey day laaj mooy ne comme ku bu demee bay dog lan la war a jëfandikoo ci biiram. waaw bu tekkee boo booy dog li nga gën a jëfandikoo si biir mooy lekk bu oyof te tàng lu mel ni genre ruy ruy. gis nga boobu moom mën nañu ko jéwén nañu ko dégg. ñu déglu ñu déglu. ah ñu déglu ñu déglu ñu déglu. bisimilah oustaz man nga ko essayé am na am na sama waa joo xam ne mu ngi fi toog dama ko wax mu reetaan ba daan suuf ne ma loolu moom mënul nekk moom waaye ba ko essayé ba léegi bàyyeetu ko de chaque jour bu ñu tegee ndogu mu ne ana parce que ah, oyof na te tàng na te dina la defal day ubbi. ubbi biir bi parce que biir bi toog na ay ay ay ay heures yu bëri yoo xam ne dara jaaro si waroo rek bett ko ak mburu wala kaasu café wala kii déedéet su boobaa day am problème boo paree dangay ngay amaat problème pour lekk sa yaram day diis ngay naan rek su xëdëri jot doo xiif après bëccëg bi da ngay da ngay sonnaat parce que moment bi nga waroon lekkee lekkoo danga doon naan rek mais luy ubbi biir lu mel ni salaat aussi mën nga jël salaat boo xam ne dañ ko mixé mooy salade yi ñuy rek genre entrée lañ koy wax mu nekk concombre nga jaxase ko ak salade bu ñu daggatee ak euh, soble jaxase ko ak tamaate loolu def si def si genre yi euh, limon wala dara pour nga ubbi sa biir bi wala nga jël ruy bu tàng naan si benn kaas bu ubbi sa biir bi wala aussi fufu am na lu ñuy wax fufu xaw ma xam nañ comme déet comme genre nu ñuy toogee suppu kànja mais du am du ànd ak kii nii du ànd ak euh, ñànkatan loolu tamit dina baax suñu mbokku jóobeen trop parce que dalay ubbi di nga mën a lekk di nga mën a naan te doo am problème li nga def si guddi di nga si mën a utiliser lekk di nga mën a naan saa am problème sinon boo bettee yaram bi ak lekk bu bëri rek résistance kii bi décision bi dafa yéex ba nga xamante ni di nga am problème pour mën a lekkaat si des si néew bi alors que soo xëyee suba da ngay da ngay gën a sonnaat. Euh, tontu bu am solo boobu kii ba tey day laaj mu ne lan mooy waral seere ak lan mooy moo koy moo koy dindi daal seere. waaw seere tamit bokk na si li koy waral mooy di ñàkk naan ndox mu bëri dina ko waral ak aussi di di comme wax sànq di di benn alimentation sax sax si. rawatina ceeb lool lu bari lool wala yi nga xamante ni pâtisserie yu bari lool nga koy utiliser lool saa utiliser ndox da koy mën na ko waral beneen bi aussi tamit li nga xamante ni jàpp baax na si mooy lépp loo xamante ni dafa riche en vitamine C lu mel ni genre ay jus d'orange jus limon yooyu yëpp dina mën a jàppale nit ki mu mu def digestion am na aussi lu si baax loo xamante ni am nañ ko fii Sénégal lu mel ni euh, euh, nu ñu koy tuddee sump lu baax la si wàll si si si aussi ok jërëjëf Oustaz ci tontu tontu yu am solo yooyu kii ba tey day laaj mu ne ah, maanaam lekk yi nga xam dafa baaxoo tàng ñu koy lekk ci seddaay ndax dana wàññi dara nit ko ndéet maanaam lekk bu baaxoo tàng ñu koy ñu koy seddal lekk moom nit ki rek mooy mooy mooy choisir parce que déjà ñun ñun ñun ataaya dañ koy naan bu tàng mais boo demee si biti ñoom ataaya bu sedd lañu la ñuy naan ataaya bi dañ koy def si kanam mu sedd ñoom nañ su su sedd lañ koy dañ koy naan foofu nag nit ki rek sans départ mën na mën na na foofu daal moom moo ci joué maanaam ci bëgg-bëggam lu mu a ko utiliser mais aussi li tax ñuy bañ ci lekk bu sedd parce que température bokk na si li nga xam ne dafay xuppu microbe yi ma doon tudd sànq am na si microbe yu bëri yoo xam ne ñemewuñ lu tàng mënuñ ko résister moo tax dañuy bëgg chaque jour nit ki di lekk lu tàng parce que dina ko muccal si lekk boobu mën a am mën a bañ am contamination boo xamante ni mën na ko lor su ko su ko lekkee parce que en général microbe ñu mën a résister tàngoor moo tax dèjà dèjà utiliser lekk bu tàng moo ëpp sécurité mais su nekkee ne lekk bi sellam wóor na su boobaa yow yaay xool bu sedd wala bu tàng loolu du am amul benn gaañ-gaañ. waa kay jërëjëf sëñ Babacar ci tontu yu am solo yooyu xam naa dafay am ne am na laaj yu fi dikk yoo xam ne damay bàyyi euh, ñi nga xam ne ñoo ko posé bu ñu mën ko posé bu mu leer ku doon laaj. waaw euh, oustaz ñu ngi jéglu baax di nuyu mboolam yëpp laaj bi suuf dafa jëmoon ci wall sport ak lekk parce que masalan li gën mooy ñu lekk doog a def sport wala doo def lekk ak seen distance naka la war a sorante waaw d'accord su su nekkee wàllu alimentation ak balaa nga dem sport mën nga jël glucide maanaam loo xamante ni dalay jox énergie des fois sax mën nga jël ndox nga seeyal si tuuti suukar wala nga jël lu mel ni genre banana jël si ñaar wala ñett nga soog a dem def sport après bi nag si ngay mën a jël euh, protéine après sport mën nga jël protéine mais avant sport jëlal glucide loo xamante ni moom moo lay offrir euh, énergie bi nga xam ne nga ko mën a di nga ko mën a a def say xam ne da soxla tabaxaat sa yaram su boobaa protéine rek moom mooy tabax yaram moo ko jox masse bi nga xamante ni soxla nga ko. jërëjëf Oustaz xam naa kon mu mel ni benn laaj bi des rek dañuy jox ki nga xam ne moo ko laaj muy ko defee ñu jox ki nga xam ne mooy wax ci turu école bi ñu doog a yëkkati jotaay bi suñu xaar bisimilah. ngi ziar bu baax Seydul Muxaadir Cheikh Aboubacar di ko sant bu baax xam naa ne dafa am benn eh, produit alimentaire bi ñuy wax OGM. dafa mel ni bari na lool ci suñu réew mi ma bëggoon nga laabiriñ ci surtout suñu bopp jigéen ñi nga xam ne ñoom xamuñu lan mooy OGM yan laabiriñ ngañ ciy jox waa jërëjëf Oustaz Abdallah si pa kii bi am na solo trop parce que su fekkee OGM mooy lu ñu tuddee at-ta'dil al maanaam lu nekk yàlla da ko bind si benn innaa kullu shay'in khalaqnaahu bi qadar yàlla lu nekk dafa bind da ko bind si benn dayo jox benn melo melo melokaan léegi nit nag day dem àdduna di ko jëy xam-xam di ko jëy ba mu jàpp ne moom waroon na gën a mën a muus yàlla mu ne léegi ndax pepp gerte bii nii li muy génn si diw dafa tuuti est-ce que mënuma ko mënuma changer gène suñu waxee gène nag mooy moom tuddee al gène mooy li nga xam ne si la yàlla moom la def moom la def secret bi mu bindee mbindeef bi par exemple tey jii boo demoon si gène kenn nit diñ ci fekk ne kii dafa njool dafa xees bët yi nii la mel foofu la yàlla lépp loo xamante ni melokaan ni mu war a mel foofu la ko yàlla di dë dëxañ aussi boo xoolee si si si légumes yi wala fruits yi dafay am ay façon ay xeetu gerte yu wuutee da gis gerte goo xamante ni doom bi mu dana rey mais du joxe diw bu bëri bii dina joxe diw bu bëri bii tuuti diw la joxe mais quantité bi loolu lépp yàlla moo leen dëxañal am benn gène boo xamante ni genre fiche la wala genre code boo xamante ni moom la ko jagleel ni mu amee si nit ñi noonu la amee si lekk yi ak fruits yi léegi nit ñi dañu dem ba si yàgg ñu ne utiliser science pour ne léegi nañ nañu changer lekk yooyu génétiquement maanaam ñu changer tabiaam su nekkoon loo xamante ni mango bi par exemple nii lay tool nañu fexe mu dem ba bay peese ñetti kilo wala ñeenti ñeenti kilo su fekkoon ne aussi euh, gerte bi su ma ko naree li la jox ci diw naa fexe ba yéegal kanté kanté bi ma koy jox si si diw su nekkee yaa dafa def nabaat dafa am nabaataat xawli dafa am nabaataat yoo xam ne gàncax yoo xam ne dafa am a màgg ak heure nan laay fexe ba muy màgg chaque heure di produire chaque chaque heure nan laay fexe ba garab bi aussi au lieu que muy am ñaari at si année bi muy am chaque jour loolu lañ tuddee attaque ay race yi ñu def ay gëstu di def ay liggéey ba bëgg a changer gène bi parce que gène moom boo ci yeggee ñëpp a ko am mais pour ñu gën ko comprendre mu gën a simple su ñu demoon ci gène bi war a bi bi bi yoree wàll njool wala wàll gàtt damay ñëw ma fekk ne yow même gène bi nga yore moom laa yore mais su nekkee si numéro bii dangay ngay gàtt su nekkee si numéro bi da ngay njool loolu mooy différence bi ñoom dañuy fexe ñu jël gène boobu di ko yéegal di ko changé ba garab gi di man a produit produire chaque jour chaque chaque moment du am ay nawet wala nawet wala muy am ñaari yoon wala ni mu euh, volume bi ni mu war a tool mu si jóge au lieu que doomu tamaate bi di toll nii doomu tamaate dem ni toll ni xaal bi muy yem ni loolu lañ tuddee OGM maanaam dañu jël lekk bi changé ko modifié ko génétiquement maa ngi ko nu junj si si sànq bi may wax codex bi ñoo ñu ay produits lañu liggéey bii nag moo gën a danger produit alimentaire yëpp dafay basé wu ci benn produit boo xam ne moom la ñu utiliser pour mën ko defar transformer su fekkee ne boobu dafa OGM la yeneen tamit li ci li ci juddoo yëpp OGM lay lay doon mais li gën a danger ci OGM mooy que ne changement bi muy changer ci gènes yi parce que doomu aadama dafa am gène moom tamit buy dox ci yaram bi doomu adama boobu noonu dafa am enzyme yu yàlla bind ci moom yoo xam ne ñoom lu ñuy liggéey mooy defar la ñu tuddee enzyme islah dañuy parce que xam na A G lay ànd ak T ñoom noonu lañ koy xàmmee. addinin yaa ngi dégg siyaamin lay ànd ak wala ñu ne jilinin say saytosine lay ànd ak léegi ñoom dañuy wër di ko defaraat chaque jour parce que moment bi ngay demee si naaj bi moment bi ngay noyee affaire day yàqu moom dañ koy defaraat mais kañ lañ ko mën a defar su fekkee fekk nañ beneen patt bi su fekkee A ah, dinañ mën a xam ne lii tee lay ànd ak ñu defar ko tee ñu fekkee C dañ ko defal lan G pour pour pour misaal yooyu nag produit yooyu da koy yàq day dem ba référence bi dafay réer. su boobaa enzyme bi su ñëwee du xam kii lan la ko war a defaral ndax A lay def wala G su fekkee moom xam xamul lu war a defar day taxaw defar su boobaa si lañ juddee lu ñuy wax lu gën lu gën a doy waar mooy wax asarataan maanaam cellule bi amatul buur amatul léegi ku koy organiser parce que noyau bi nekk si biir mooy saal bi moom mooy wax kañ la nit ki war kañ la war a mën a war a mën a multiplier wu ak kañ def méiose yi ak mitose yi ak seen étape la war a su fekkee nag yow yaa ngi yaa ngi lekk genre lekk yooyu day yàq gène bi ba nga xamante ni moom bu ñëwee du amati léegi cellule bi du amati buur maanaam du amati ku koy organiser dafay màgg rek di dem moo tax nga gis nit ki benn yaram si parti bi di benn loxo bi du du yam ci maasa loxo day dem ba toll nu maar day maar taali parce que léegi ki ko doon wax naan ko yamal fii ak commencé fii amatul ci yaram bi donc danger bi foofu la nekk mais fikratu OGM mooy lan mooy nga changer dara ci ni ko yàlla bindee woon def ko yow comme ni nga ni nga bëggee diggante changement boobu mën na am si jumtukaay mën na am si xarale mën na am si waaye dafay juraat lu doy waar si jàngoro li ci gën a siiw te gën see taxaw moo lu ñu wax jàngoro cancer yal na si yàlla musal day tax ba yaram bi du amati règlement du day du amati kenn ku koy orienté moom mooy def nu mu bëggee loolu nag mooy waral yenn néew yi di am yàlla na si yàlla musal mooy feebar bi nga xamante ni moom mooy feebaru jamono daanaka sonal nañu bëree bëri. jërëjëf euh, oustaz ci leer bi am solo yooyu lii rek day wane rek euh, l' importance nga xam ne thème bi nga amoon doon ko waxtaanee xam naa ñu ci laaj mujj bi rek kii te ñu ngi ci fruit ah, dañuy gis ne fii au Sénégal dañuy xewlu bu nag doo koy lekk léegi mën laaj ba xam jiital gi ak mujj gi lan moo ci gën. waaw ah fruit moom dafa war a jiitu mais ñun moom dañu am seen règlement yoo xam ne xamuñ fu mu jugee ndeysaan waaye fruit dafa war a jiitu dem sax ba alquran lu muy wax wa faakihatin mimma yataxayaruun wa laxmi tayrin mimma yashtahun da ngay lekk fruit ba pare soo lekk maanaam dawal gi wa li nga war a war a lekk. parce que dafa am ay acide yoo xamante day nekk ci biir yoo xamante ni dafay tax yi ay yaram maanaam da koy para préparé imagine yow ngay ngay testé wala ngay essayé sa bopp nga ñëw benn jour bala nga nga añ ba pare beneen jour nga ñëw nga añ ba pare nga lekk nga lekk sirop nga xool yow sa yaram ban ngay am si biir da ngay ne moment bi ko jiitalee si ngay gën a sa décision ci a gën a yomb donte ne amul loraange bu ma jural yaram bi mais li tax yaram bi gën si mën a jëriñoo mu gën a mën a yomb si moom mooy nga jiital lu ñuy wax entrée moo xam mën na nekk sirop wala mën na nekk sax ay légumes bala ngay lekk li nga xamante ni mooy sa repas principal. jërëjëf euh, Oustaz ci leeral yu am solo yooyu di la sant bu baax ci sa taxawaay fii ci daara ji comme ni ko waxoon ca début ba mu mel ni ñeenti yëpp ñu ngi koy ànd yow ci vacances yi nga ñëw am vacances fii ngay toog trois yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Mbacké ak Serigne Bassirou mi nga xam ne moo jiite commission scientifique bi taxaw liggéey bi fii mbooleem yi nga xam ne ñoo ci nekk comme niñ ko waxee woon rek mu mel ni conférence bi dañ ko dara jàlle woon école franco arabe Cheikhoul Khadim xam naa mu mel ni suñu Fallou Sarr directeur bi